نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك كي والدكتنا جوكتي على جمود سيسي نيري غواح مارا سيسي أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول البلاد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

Wadduha yàlla moo ci giñ yor-yor la léppay leer El Hadj Mamadou Cissé Mara waa góor. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad. yaa ma leen gënal yaa ma leen mënaloo Muhammadu Rasulullahi. yéen mbokku déglukat yi Mara Cissé di leen amal émission Wadduha 10 heures ci guddi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 mbokk yi balaa ñoo def leen rek ñoo ngi santaan mbooleem kilifay diine yi nga xam ñoo ngi ci diwaanu réewum Sénégal ay kilifay aada mbokk yi mu ñu ngi koy safoo di defee ci waxtu wi di ziaraat bu baax a baax sëriñ Malick eh, Sidibé xarale bi di ko ñaanal yàlla buur bi subhaanahu wa taala kàttanal ko ak mbooleem personnel bi yëpp ñu ngi leen koy ñaanal bu eh, baax a baax a baax mbokk yi mel ni bu waxtu bi jotee 22 heures eh, jàpp 0 heure ngeen si doon ànd ak sëriñ Mara Cissé mu mel ni ba léegi itam lépp rek ci jotaay Wadduha la mu mel ni dafa nekk ci yoon woo xam ne rek loolu rek la waaye itam xamal rek ñoo ko fi teewal jaay lépp rek nekkat rek ci wàllu mbirum wadduxaan ni muy gémee ci kanam ñu di ko santaat bu baax di ko ñaan allah buur bi subhaanahu wa taala doole guddal fanam doole ko defal tawfiq ak taysir defal ko najaax defal ko sax gaare ni ci barke yonent bi mu yàgg lool ci kanamu eh, askan wi waaye tam yàgg lool ci kanamu njaboot gi sëriñ Mara Cissé ñu koy sant bu baax a baax a mbokk yi di leen fàtt rek ni eh, saa su ne itam askan wi di ko bàyyee eh, a ambassadeur askan wi di leen santaat bu baax a baax moom it saa su ne boo leen déggee Serigne Mara Cissé daanaa nekk ci wetam ñuy wétaleen euh, ci plateau bi fii ci seen jotaayu euh, Wadduha mu mel ni tamit euh, dañu fas yéene rek incha allah àndal li nga xam ne mooy daayira bi nga xam ni ñoo fas yéene ànd ak ñun tey plateau bu mel ni tey duñ ci wéet muy daayira ansaaru ansaaru diin bu nekk ci diwaanu Baxdaad incha allah dañ ci gën a yaatal bu baax a baax a baax mu mel ni tam ñu ngi ci ànd ak oustaz Ismaïla Cissé ak oustaz Ahmakhtar Ngom ñu ngi koy nuyu ak Omar Diop ñoom ñu tew ci plateau bi dañu fassiyene rek wax lan moo waral euh, jotaay bi lu watal lu waral tey plateau bi nga xam ne tey euh, lépp rek Serigne Mara Cissé tam jël ko rek jàggale leen ko kon lépp lo daañ ci gën a mën a yaatal yaatal bu am solo waaye mbokk yi nag balaa ñu tàmbale rek jotaay Wadduha mu mel nii euh, ci li nga xamni sunu kilifa rek mi ngi fi yabal muy Serigne Mara Cissé mu melni xamal nañu tay bañu ñu ak mom tay mbégte bi nga xamni tay ci Wadduha mos koo am sax la ñuy wax ndax li ko waral euh, muy soxna soo xam ni xëy na bokkuñu diine euh, ñu diine ci beneen wàll wi la ne woon waaye dafa ne dafa bëgg a tey euh, yees lu dugg ci tàbbi ci biir lislaam waaye loole yëpp itam mu ànd ak ndigalu borom këram ndax borom këram tabarkàlla ci lislaam la nekk waaye soxna si nekku ci woon borom kër gi def na ci lu ne waaye itam dégg nga dëgg sëriñ Mara Cissé waaye tamit ak jotaay Wadduha di ko topp ay ati at ba tax na itam mu ñëw l'islam mu nekk loo xam ne incha allah dañuy ñaan yàlla suñu borom euh, tabaraka wa taala àggaleel ñu ko muy ndamam lislaam képp na ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah boo ko déggee li mbégte lay nekk ndax itam nañ ko waxee borom këram nekk na loo xam ne yàgg na ko bëgg waaye tamit soxna si dem na ba nga xam ni euh, xolam daal wax dëgg yàlla jotaay Wadduha indi na li ni mel kon mbokk yi mu mel ni incha allah nañ ko waxee Serigne Mara euh, na loo ci barkeloo goo xam ni bés a bi bu ko defee daañu ko gën a mën a yaatal loolu nekk noo xam ne ndam loolu goo xam koo xam ne itam yaa ngi aju ci njabootu Wadduha loolu yaakaar naa mbégte la kon ñuy ñaan yàlla bu subhaanahu wa taala àgg leen ci ak jàmm mbokk yi kon loolu mënuloon ñàkk itam nekk loo xam euh, euh, li nga xam ne moo di Serigne Mara Cissé sunu kilifa mu nekk loo xam ni euh, faw ñu leeral ko tamit ndax loolu ne fa nekk loo xam ni lu yaatu yaatu lu lu lu lu sedd xol la ak képp ku naan rek rek ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yakarna naa ne loolu boo ko sa xol dina ci sedd kon mbok yi non lañu reun ubbe plateau bi inshallah rek di leen waxtu bi mo fi waron tok nak waye tay mu nekkon ci ay yitte loolu rek mo waral tay ni tewul tay ci studio bi waye tay man tewul ko fi kon lolou yakarna ni lolou rek day daal di nekk rek ben dañuy géem ndax wutu serigne Mara Cissé lu jafe-jafe la kon nak mbok yi non lañ koy ubbe waye di nuyu mbollem association Wadduha bi ñu ngi leen di nuyu bu baax association Wadduha Wadduha solidarité ñu ngi leen nuyu bu baax euh, Adja soxna Adja Aram Ndiaye mboolem kulim da ngay daal di ju maa leen di ziar bu baax a baax a baax dañuy def rek dañuy ubbi euh, jotaay bi di ko jox euh, oustaz Ismaïla Cissé moom it mu nuyoo ubbi kaddu gi nuyoo incha allah bu ko defee rek ñu daal di rek dellusiwaat incha allah tof toftal ñi nga xam ne ñoo war a nuyoo ànd ñun ci plateau bi bu ko defee rek ñu mën a dugg ci li nga xam ne mooy jotaay wadduha wadduha waaye itam lépp rek incha allah dañu wax seen wàccaay lu tax itam teewaay bi loolu yëpp dañ ko gën a mën a yaatal Oustaz Ismaïla Cissé ñu ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dalal waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sang bi ñu ngi lay nuyu bu baax. di la ziyaara di nuyu mbooleem ñuy bëgg rajo bi di nuyu mbooleem ñuy déglu ci réew mi ak bitim réew rawatina ci umma islamique bi yëpp. di nuyu kilifa rajo bi di nuyu personnel bi di nuyu Serigne bi ñu àndal muy Serigne Makhtar Ngom ak Serigne Amar mi ñu ngi leen di ziyaara bu baax. nuyu itam waa daayira bi nga xam ne ñoo ñu yebal fii tey ñu teewal leen fii mhm. ah seen kilifa ñuy wax Alsaan Thiam si la ak mboolem ñoo ñu bokkal xadara ba du nuyu ñëpp nag rawatina kilifa diine yi. Mhm. rawatina suñu kër gi nga xam ne moom lañu yàlla nandalee. muy Tiwaawan ñu ngi nuyu xalifa bi di nuyu mbooleem. Mhm. njabootam di nuyu mbooleem njabootu si Haj malik ak mbooleem jullit réew mi. a jërëjëf euh, oustaz Ismaïla euh, Cissé ci kaddu yu rafet yooyu xanaa rek dañuy yëkkati kaddu gu jox ko euh, sëriñ Makhtar Ngom sëriñ Makhtar Ngom asalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ñu ngi lay fay sang bi bu baax a baax. di la ziyaara. di jaarale suñuy nuyoo fi ko oustaz Ismaïla jaarale. Mm-hmm. te mooy njëkkee ko ci kilifa rajo bi personnel bi yëpp nuyu leen ziyaara leen. Mm-hmm. waaye sunu bunt ci fii nag mu di sëriñ Mara Cissé mm-hmm. moom itam ñu sant ko bu baax gërëm ko mm-hmm. ñaanal ko yàlla mm-hmm. yàlla taxawu ko bu baax a baax a baax tabaarakallaahu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax yàlla defal ñu tawfiix ba ñu tàmbali ko ci bismillaahi rahmaani rahim mottali ko ci alhamdulilah rabbil alamin mhm. yal na ko yàlla def ci barke yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah tabarkalla sa sëñ Makhtar Ngom yaakaar naa kaddu yi tamit tabarkalla muy kaddu yu rafet kaddu yu euh, sel euh, dañuy joxaat tamit euh, kaddu gi sëriñ Omar Diop sëriñ Omar Diop asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàcc waay di jiital si nuyoo bi borom kër gi ñu koy nuyu baax di ko ziar di ko jox wàccu waayam di nuyu eh, suñu kilifa giñ ko àndal di sëñ Mara Cissé ak Oustaz Matar Ngom ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di nuyu tamit eh, waa xadar gi ñu fi teewal gi yëpp jiitoo ko si président Ibrahima Pouy ak Serigne Assane ak présidente Soxna May ak eh, mbooleem ki nekk si biir daara bi ñu nuyu ne leen bu baax ziar leen jox leen seen wàccu waay di ñaan yàlla yàlla na yàlla dolli jàmm sa barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ci nuyo yooyu tawarkal mu nekk loo xam ni muy eh, eh, ni ma ko waxee waa daayira ansaaru ansaaru diin bu Bagdad mu ngi leen di nuyuwaat bu baax tawarkal ñu leen ñaanal yàlla mu mel ni ñoo ngi waajal tàkkusaanu eh, sëriñ Babacar si taala anhu muy seen édition bu njëkk incha allah ci kàttanu suñu borom samedi 8 avril 2017 mu mel ni sëriñ Mara Cissé moom it nekk ci loo xamante ni moom it ci parrain yi mu ñu parrain yi moom ñu bokk ci parrain yi loolu dañ ci waxtaan ak euh, euh, Serigne Makhtar Ngom Serigne Makhtar euh, gis nañu Serigne Mara Cissé tabarkàlla bi nekk seen première édition ñu gis mu bokki tamit ci parents yi lu waral li ni mel ak xalaat bi nga xam ne waajal nañ ko tàkkusaan Serigne Babacar mu mel ni su may xool mooy seen édition bu njëkk mhm. sëñ Mara Cissé seen diggante ak Serigne Mara bëgg nañ tam ñu waxtaan ci lu waral relation boobu. fa tabarakallahu laaj nga question bu am solo Serigne Mara dafa nekk. Euh, mbokk taalibe hmm. nekk itam ku am taxawaay waaye ànd ak loolu lépp itam mu nekk ko oyof hmm. digganteem ak nit ñi tamit tabaarakalaaw nekk diggante bu rafet hmm. euh, maa ngi fàttaliku mos na ni fee ñëw ay jamono doon yëgle lu mel nii mais li ko waraloon sax programme bu mel nii la woon donte ni moom bokkul woon ci parrain yi waaye jamono bu nekk suñ koy def day dafay euh, sawar lool ci yëfi yaatu. Mhm. ñëpp yëg ko mu def ci taxawaay bu am solo. sëriñ Mara loolu bokk na ci li gën a tax ñu def ko kon nitu diine la. Mhm. ko ba noppi ci famille mais mu nekk ko itam ci jikko. tabarkalla waaw tabaarakallaaw loolu daal bokk na ci li gën a tax ñu delloo ko njukkal boobu. alhamdulilah mu nekk loo xam ne lu am solo ñu gis ni eh, tàkkusaanu Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mm-hmm. muy tàkkusaan bi nga xam ne moo nekk seen édition bu njëkk. Mm-hmm. kon su ma koy dégg kon eh, moom bi yéen a ngi koy soog a tàmbale bu ñu ne première édition wala yàgg ngeen ko taxawal waaye da ngeen koy soog a eh, siwal daal maanaam. waaw boobu daayira bi bi mu taxawee mën nañu wax ni yàgg na yàggul. Mm-hmm. waaye bii mooy première édition bu nu def comme tàkkusaanu Serigne Babacar Sy waaw waaye daan leen taxawal nag ay programme lu mel ni laylatul xadar muy nekk ay programme yu yaatu yoo xam ni mm-hmm. dana mag lool dana xaw a tolloog dayoo gàmm waaye bii nag mooy bu njëkk boo xam ne organiser nañ ko bu bokkul ak guddi yi ñu ko daan def ñëw def ko tàkkusaan alhamdulilah tabarkàlla yaakaar naa loolu am na solo sëriñ Makhtar Ngom daañu dellu si waat tuuti waaye tamit damay ànd ak oustaz Ismaïla Cissé ñu waxtaan tamit xam nga bu ñu waxee tàkkusaanu sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu faw ñu waxtaanee ay jikkoom jaar-jaaram itam loolu nekk na loo xam ni tabarkàlla loolu rek tënk na jotaay bi ndax fii ba suba itam bu ñu ko doon wax du jeex bëggoon nañu xam tuuti oustaz euh, Ismaïla euh, sëriñ Babacar Sy kan mooy sëriñ Babacar Sy jëm yi xam nañ euh, tout tànk sax yu tàmbalee judd xam nañ ko mm. waaye am na ñoo xam dañuy réeri mbir ci lu bare bare yow ndax baax na ñuy fàttali tamit mm. euh, kàddu mag ñi ak mm. njàngale mag ñi loolu dafa nekk loo xam ne lu am am solo la tey booy déglu seen waxtaan tey day mel ni la ñu doon wax tey gi lañ koy soog a wax te loolu bañ ko wax ati at la euh, sëriñ Babacar Si kuy sëriñ Babacar Si waaye tam bëgg nañu xam tuut ay jaar-jaaram dëgg-dëgg sëriñ Babacar Si ak yi mbindam ñu waxtaan si ci jërëjëf sëriñ bi laaj nga question bu am importance xam naa dinañ xaw tuuti sax nag ci wax kan mooy Serigne Babacar Sy parce que li ëpp ci liñ ci xam mhm. ma fekk na ay mag moo ñu nettali waaye ña ñu nettali itam nag doyloo nañ seen ak maandu te ba gëm nañ ne lañ ñu wax noonu la demee donte la mënuñu matali yëpp mhm. waaye euh, la son Seydina Aïcha waxoon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ koy laaj kan mooy yonent bi mu ne bu ngeen bëggee xam Muhammad daal dem leen jàng alxuraan lu ngeen fa dégg rek noonu la mel te sëñ Babacar Sy kenn umpalewul ne lañ waxoon maamam baayam Seydi El Hadji Malick genn góor gu baax ne woon na ko Maodo. góor góorlu ñun ñëpp yàqu nañ. mu ne ko lu ñu yàq parce que benn. mooy sunna jam nañu. wala sariya jam nañu. ñu di fexoon ba bëgg a rëcc ci ngor mu mujj jam ñu. yow mawdo nag rëcc nga ci sunna jam la. rëcc nga ci sariya jam la. bi ci des woon mooy ngor te gëm na ni di nga ko të ndax da nga teel a xàmmee. kooku mooy baayam. bi mu gënee àdduna itam ci ay baayam moo ko yaral boppam. kon képp kuy laajte Serigne Babacar Sy boo xamee tuuti ci alxaaji Malick mën nga gëm ne moom la beneen bi jëri muy góor goo xam ne li ma gën a marqué ci moom ci li ñu nettali mhm. mooy ku amoon personnalité la ku fonkoon ay waajuram la mhm. waaye it ku gëmoon diine lislaam la ci ngëpp waxuma gëm ngëpp téye ko parce que diine am na ñoo xam dañ ko def këllu monaar këppoo ko rek dem toog ne sëriñ laa nii laa sant wala fii laa bokk waaye bare na sax moom lu mu naan wax ci kàddoom mhm. fauteuil bii ma toogee bu ma Maodo jurul woon ma toog ci parce que dafa gëm ne moom fauteuil bi amu ko sant ko ko may. waaye daf ko am ndax jikko ak mhm. yitte moo ko may. dëgg la kon nag yooyu ñaar la ñuy gën a askan wi. Mhm. bu ñuy bëggee topp yoonu Serigne Babacar. ñu yëg ni li ëpp ci yitteem moom góor googule mooy yitteem ak pas-pasam moom la gënoon a yittewoo toppatoo ko ci askanam ak juddoom. tabarkalla. Mhm. Euh, li tax ñu taf tàkku sànn sëñ Babacar. jar na laajte mais jarul laajte. parce que boo amee kilifa. li nga dégg ci moom. mën na wax ne fekkee woo ci dara waaye li nga fekk ci téere yi mu bind ko mhm. li nga gis ci doxalin mu def ko ci mu dégg ne def na ko mhm. ak njaboot gi nga xam ne moo leen jur yaral leen boppam yow nga ne ngéej bëgg mel ni ñoom mhm. war ngaa xam ne ki leen def nii am na nu meloon lu jor doyloo kooku it boobu waa luñ ko mën a tuddee da ngay yëg ne mérito na lu ko ëpp te kat dafa daan wax ne man Babacar si mii ngeen di gis ñett ñii maa ngi leen di araftu ku bëgg jàmm na nga ci téye loxo diine yàlla jii ku ci man li yàlla santaane ne ci ko ci mënul mandu ci dëgg la njabootu Seydi El Hadji gi gii mhm. ku ci man li ko Maodo tëralee nga ànd ci mhm. ku ko mënul màndu ci tarixa Seydi Ahmad Tidiane bii ni ko sare ni ko loi yi rëddee mhm. ñu topp ci ba am ci teraanga ju toll nii ma may man Babacar Si kenn ci diir ma fii kenn di ci def loo xam ne wuute nag loi yi ñu ci tëraloon mu ne diine yàlla ji bokk Seydi El Hadji Malick gi tarixa Seydi Ahmad Tidiane bi te nag lu ci ne bi mu ko waxee ñu dégg ko non seulement gëmoon nañ ko waaye bi jëf jotee jëf na lu tax ñëpp xam ne lam doon wax def na lu ko ëpp kooku mooy góor gi nga xam ne nii ah, parce que dafa wax bu amee importance ci laa ko gën fonkee man gën ko ca sopp donte la nettali laa ci am mhm. mooy def Serigne Cheikh moo ñu nettali ne sëñ Babacar dafa naan wax ne du jàpp yàlla mhm. ñu ne ko góor gi lan mooy jàpp yàlla mu ne personnalité personnalité mhm. personnalité sëñ Babacar si nag mun naa wax ne du du lu nit mën a toog wax ko ba mu jeex waaye li ci gën a rëy te gën ci fës mooy ci jikkoom ak matam ak yitteem ak taxawaayam mhm. jamono yi góor gi di génn àdduna di ko fi bàyyi mu toll ci 37 ans mhm. am na lu bëri bëri loo xam ne bu yàlla defutoon ci moom mu am personnalité waaw am dignité mhm. am fierté ci li mu nekk am sentiment ci njaboot gi lu bari doon na yàqu mais taxawaayam moo couvrir lépp ba tey ñëpp bëgg cee bokk ba ko ci jot man ci jariñu barkalla tabarkalla yaakaar naa bunt boobu am na solo euh, oustaz Ismaïla Cissé dëgg yàlla ñu sant bu baax ci leeral gu am solo googu euh, euh, di delluwaatam di jox kàddu gi euh, sëñ Maxtaar Ngom sëñ Maxtaar dañuy seetlu lu ci bari bari rawatina mboolem taayira daayira yi nga xam ni ñoo aju ci waa kër Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu saa su ne bu ñuy waxee tàkkusaan tàkkusaanu sëriñ Babacar Sy la ñuy wax lu waral li ni mel bëggoon naa ñu waxtaan ci li mel ak xalaat bi fu mu fu mu fu mu bàyyeekoo. sëriñ Babacar si sëriñ Cheikh Tidiane si daf ko wax ne ko wali zaaka aynuhu bal dikruhu yaxya mahal ajyali jiilan jiila nee na Babacar si turam ak personnalité am toujours dafay méngoog génération yi ñëw génération bu ñëw rek mel ni ñoo a xam mel ni ñoo a bëgg mel ni ñoo ko gën a sopp loolu nag may la bu ko yàlla may ba tax na bañ na ko ba suñ tuddee tàkkusaan rek xel yëpp ci lay dem même su fekkente ne da koy tuddee keneen it boo ne rek li parce que loolu Serigne Cheikh waxoon ko te yàlla defal ko ko mhm. toujours turam dafay lëkkaloo ak génération yi mhm. génération bu ñëw rek mën jariñu ci jikkoom mhm. mën jariñu ci personnalité loolu tax euh, daanaka saa yu tuddee tàkkusaan rek xel yi dem ci moom. dem ci moom alhamdulilah euh, damay dellu siwaat foofu ci ay mbindam yenn ci mbindam yi nga xam ni euh, dañ koy faral di euh, dégg. Mhm. léeg-léeg nga dégg ci dañ naan la sax ci ziar général. Mhm. bi nga xam ne ay jamono bu mu toggee moom téye woon na ko. Mhm. te ba léegi ñu koy doxal bu baax a baax. di ziaraat bu baax a baax xalifa général des Tijaani yi muy sëñ Abdoul Aziz Al Amin di ñaan yàlla buur subhanahu wa taala doole guddal fanam lool doole ko defal tawfiq ak taysir ak najaaxa defal ko saxaat ren ci barke yonent mu yàgg fi lool waaye tamit di di di ñaan suñu borom gën a ay leeru sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ko yokk saa su ne tamit di taas ñu ci barkeem bi may dellu si waat foofu tamit dafa nekk loo xam ne solo daayira bi gis nañu daayira ansaaru bu baghdad ndax moom daayira bi moom rek la wala am na yeneen daayira yoo da ngeen lëkkaloog ñoom ci bés ba wa mhm. ilaa daayira bi rek moom li muy soog a tàmbale moom rek la <laughs> tabaarakallaaw laajat nga question bu am solo mhm. parce que ñun foofu noonu ñu dëkkee dafa am gox bu ñuy tuddee Medina Gunaas mhm. ak Baxdaat ñaari gox la yu taqaloo ba ci jidda caaroy kaw mais daayira yi nekk foofu yëpp dañu wëllaranteeg ñoom même su dul bis yu mel nii dañuy demlante ci wàllu daayira dañuy demlante ci suñuy wàllu xew ak yu mel noonu loolooy tax même bu ñu ñoom dañ ciy ñëw jàpp. Mhm. am na sax ci daayira yoo xam ne ñoom lañu ko tudde lu mel ni sopp xalifa Malick te Serigne Makhtar Diop jiite ko. lu mhm. mel ni dayre jidda bi nga xam ni Serigne abu Diop moo ko jiite. Mhm. ak dawaayir yi nekk ci côté boobu yëpp yu soldaaru sëñ kër yi ñoom ñëpp jox nañ leen ci cër boo xam ne daal daañu ci gis seen bopp mooy wan leen ni bis bi seen bis la. Mhm. te yu mel noonu soo xasaan xew sa ñi nga xam ne ñoo organiser daanaka su bis bi jotee duñ ci def dara yeneen daayira yëpp ñooy ñëw dugal ci seen loxo ñuy organiser lépp ba matale ko. waaw moo tax euh, ñun daal noonu rek lañ koy doxalee. jërëjëf euh, euh, sëñ Makhtar Ngom jërëjëf mbokk yi tamit di fàttaliku mbokku auditeur rajo RMD rajo municipal de Dakar seen jotaay Wadduha la rek ni ma leen ko waxee tey ñu wutu fii jafe na ko sax muy Serigne Mara Cissé mbokk yi tubaarkàlla di dimbalanteeg jaamu yàlla yi euh, askan wi yaakaar naa xam nañ ko bu baax a baax rawatina ci waxtu bi bu daawoon jot 22 euh, jàpp li nga xam ne moo di heure waaye tam ni ma leen ko waxee tamit mu mel ni tey ñoo ngi fi dalal euh, waa daayira ansaaru diin bu Bagdad waaye di leen fàtt rek ne tey parrain bi nga xam ni sëriñ Mara Cissé dañ ko parrainé bés bi itam mu bokk ci muy tàkkusaanu sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu muy samedi bi nga xam ne le waa daayira bi kon ci kanam tuuti rek na ma ko waxee nuñ koy faraloon di de nuñ koy faral di defee rek ci kanam tuuti daañu ubbi téléphone yi nag di leen fàttali euh, yéen ñi bëgg ardu ci ligne rek ci kanam danañ ko ubbi waaye ubbeeguñ ko waaye nag di leen jox numéro bi 33 la 821 14 85 33 821 14 85 loolu mooy numéro bi ci kanam tuuti incha allahu daanu daañu ubbi ligne bi waaye bu ko jotee rek dañ ko wax euh, dañu delluwaat incha allah daa mañ daanaa ñëw dinaa ñëw ci kanam tuuti ak sëriñ Omar Diop waaye tamit loolu ci dinaa waxtaan ak moom ci wàllu wàccaay beeg wàllu organisation bi daf ma koy dencal ci kanam tuuti damay delluwaat ak oustaz Ismaïla mhm. Isma euh, oustaz dama euh, bëgg nañu xam tamit yenn ci ay ay téere yi nga xam ni góor gu baax gi le na ko ndax bu loolu mën nañ ko xam téere yi nga xam ne jot na koo taalif sëriñ Babacar Si radiallahu taala tubaarkàlla taalif na téere yu bari yu bari. mais man li ma gën a marqué ci sëñ Babacar. parce que man li ma ci li ma xam ci moom bariwut. waaw bu fekkee yàlla a tax may wax. dégg-dégg ci nit ñi rek laa ci am. parce que li ma gën a repéré wu gën ci concentré wu. mooy Serigne Cheikh. Serigne Cheikh mais man sëñ Babacar yàlla xam na ne néew na sax ma toog ci mbooloo di ci parce xaw ma ci lu bari. ndeysaan bàyyam si laaj maay sax li ma ci xam bariwut. ndax dama jàppoon ne man li ma fekkee. Mhm. comme mënu ma ko jeexal. Mhm. la ca passé woon dëgg la danaa am yitte pour gëstu ci. xam nañ ci moom lu bari. Mhm. defe naa loolu sëñ Maxtaar moo ci gën a jekk pour man ci tontu. wax dëgg yàlla parce man bariwuma ci xam-xam. te awma envie di wax ci lu ma xamut. bi ci des it mooy ñoom niñ toll awma fitu wax ci ñoom lu ma xamut. dëgg la. ñoom ma leen a sosal. ñoom ma leen a kereel wax boo xam ne ni sopp leen rek ci laa ko teg. bëgguma a bi ci desin mooy ka ko jàngal bu mu leen ko jàngal ci cofeel na leen ko jàngal teg ko ci maandute ak xam-xam bu dee cofeel rek la ko teg dem mhm. leen laaj ko koo xam parce que nangu ci làmmiñu góor gu baax gu ñuy wax Serigne Mansour borom daara ji mhm. mu ne téere yi génne Tiwaawan rawatina yu Maodo bind loo ci jàngul ku ko Maodo jàngal jàngalu la ko mu ne boo koy nett li nga def ci ndànk mhm. moo tax daal lu gën a bari man fu man boobu du ma ci sori xanaa ñu mbaaj ma wax sëñ Maxtaar xëy na moom mën ci wax lu gën a bari sëñ Maxtaar dañu dellu waat foofu ci sëriñ Babacar si dégg ngeen ni mu ko waxee bu nekk loo xam ne lu am am solo la dégg ngeen ko ni mu ko waxee ci sëriñ Babacar mu nekk loo xamante ni moom euh, gis nañu yi nga xamante ni wax fa dëgg yàlla ay xasida yoo xam ne moom euh, na ko euh, ci li nga xamante ni wax fa dëgg yàlla ndaw ñu bëri nañ ñi nga xamante ni am na ay ay xasida yoo xam ni dinañ ko jëlee tiire ko ci sëriñ Babacar si maanaam di ko jàngaat bëggoon nañu xam tamit ci bés boobu tam tey daayira bi tey bu fekkoon ni toog na xëy na xëy na ay mbindam moom dina nekk loo xam ne bés boobu dana am solo kontaan nañu bu baax itam ci question boobu. Mhm. Euh, ndax mag ñi def nañu yitte bu rëy pour mhm. jéem di dajale li mu bind. Mhm. ba def ko ci tënk ko ci benn diiwaan. mais toujours damay wax ni li mu taalif yëpp lu ci néew lañ ci mool li ñu ci mool itam. lu néew lañ ci jàng. li ñu jàng itam ci bindam. lu néew lañ ci dégg. lu néew lañ ci dégg. alhamdulilah mu nekk nag euh, xasida boo xasida yoo xam ni def na ko def nañ ko ci diiwaan. organiser ko ba soo ñëwee daa xam lenn lu nekk ak lam ci jublu. Mhm. te mooy ranger la ko ba nga xam ne soo ñëwee di nga fekk xasida yi mu way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. teg ci xasida yi mu way Mawlaaya Sayyid Cheikh Ahmad Tijaani. teg ci yi mu way Cheikh Al Hadj Omarul Fuutiyu. Mhm. teg ci yi mu way Euh, Seydil Xaaji Malick way na itam ay taalif ay ñaan mm-hmm. waaw ay tawassulaat yu bëri mm-hmm. def na ko mm-hmm. moom Serigne Babacar si way na yenn ci mu muqaddamu Seydil Xaaji Malick yi ku mel ni alxaaji Babacar Dieng bi mu génnee àdduna sëriñ Babacar si way na ko ñooñ dañ ko marqué woon way na ku mel ni soxna Roqaya Ndiaye way na ku mel ni soxna Safiyatu Ñang way ci magu moo moom sëriñ xaaji Maalik yi yu bëree bëree bëri mais daal li gën a siiw ci ay wayam dafa mel ni dafa jëm ci wàllu mawlaana si Cheikh Ahmed Tidiane mm-hmm. al Chérif al Fouti la yaakaar naa ni jërëjëf euh, sëñ Makhtar Ngom loolu tamit nekk na loo xam ne lu lu leer la euh, waaye itam sëñ Makhtar euh, gis nañu tamit mbooloo boo leen wooyee ba ñu ñëw mm-hmm. tabarkàlla rawatina li nga xam ne moo di tàkkusaanu sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu mm-hmm. faw nga yëkkati dara teg seen loxo maanaam tam li nga xamante ni rawatina ci wàllu jamono ji ñu toll lan ngeen xalaat ci mbooloo bu ñu ñëwee tamit moom leen fas yéene itam teg ko seen loxo tabaarakallaahu bu nu ñëwee nu ñu fas yéene woon defu waxtaan wi mhm. mooy dëgg la ñu waxtaan ci sëriñ baaba kër si mais du ñu waxtaan ci ay karaama mhm. parce que karaama kenn mënu cee roy nitu yàlla mhm. karaama kenn mënu ci roy nitu yàlla mais ci jikko la ñuy roy yàlla ci la ñuy roy yonent nitu yàlla itam mënta rëy di rëy di rëy ba weesu ci moom wala ñu jombale jëmmam jooju ñu roy ko kon kon du sant kenn ñu roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ Babacar si nag dafa amoon ay jikko yoo xam ne moom la incarné woon toujours dama koy wax te ñaar moo ko waral. moo tax toujours ku yore ay ndaw. wala nga nekk ci milieu boo xam ni da nga ko war a da nga war a yar ndaw ñi. Mhm. toujours sooy soo leen di jàngal ku mel ni baaba Babacar Sy war nga delluwaat ci ak ndawam. Mhm. parce que jaar na ci jamono boo xam ni même su jëful jëfi ndaw. ci âge boo xam ni moom la ñuy tuddee ndaw jaar na fa. Mhm. âge boobu dafa marqué Serigne Babacar Sy parce que dafa am ñaari ko yàlla defal. mooy place bi mu juddoo lu bëri ci dundu Serigne Babacar Sy ñaareel bi ki ko yar dafa marqué lu bëri ci dundam ndar gi mu juddoo dafa marqué lu bëri Serigne Cheikh Tidiane Sy dafa wax ne alima ala xayri jazirati innaha raat xablu xutbal yawmi fi mahdihi tifla nee na Serigne Babacar Sy radiyallahu taala bi mu tolloo ci ñi koy teg ci berso nee na dafa dafa amoon ay mag ñu ko couvrir ñoo xam ni kenn ku ci nekk da nga mat li nga doon من رأت في أبي بكر سبيا ممنعا فلما عوى عشرا رأت طفله الشبلة نسرين بابا كرسي بمي طالو تدي أم فكيات نانا بوكو خولي رجيك نكير جايندلا بمي أم فكيات من وإن أدركت عشرين وإن أدركت العشرين فهو وليها سرائرها تبني له القول والفعل نانا سرين أبي بكر سبيمي أم فانتا مون يكون وليون دار نخمني وخم أجفم يبدنتي bëgg mu wax ba nu ba nu roy ko wala mu jëf ba nu roy ko moom Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mu ne nag la ko ko may ba tax mu dem ba ci biir xasida bi mu ne la ko ko may wa ma huwa dha min bayni bahrin wa nahrihi hakiman yara fil bahri wa nahri ma jalla Serigne Cheikh Tidiane Sy nee na li ko gën a may Serigne Babacar Sy dafa ñëw juddoo ci diggante dex gi ak géej mu ni loolu nag dafa nekk sens symbolique bu am solo parce que dafa am lu ñuy tuddee marajal bahrain même ci wàllu baatin dafa am lu ñuy tuddee marajal bahrain ki nga xam ni moo ndar kepp li ñuy tuddee baaxaru charia ak li ñuy tuddee baaxaru xaqiqa mu ni même Serigne Babacar Sy bi muy dund ci ndar dund googu mu dund ci diggante dexu ndar gi ak géeju ndar gi daf doon joxe sens symbolique boobu nga xam ne ci la war a téye baaxaru charia ak baaxaru xaqiqa alhamdulilah mu ni bu ñaareel bi mooy Serigne Seydi Hadji malik mi ko yar mu ni Seydi Hadji malik fali li ruuxi nuurun nuurun ma wali nafsi izzatun wali qalbi xubbun fi sanan min jamalihi wali jismi min kulli lgada tayibatuhu ويجهل معنا رزق دون على له من سر حاج مالك دا فا فخه با ديغنت يارام اك خل اك روح اك جيم لي ني تودي انتر اكسون يي ام سر حاج مالك بوني لين با ماي لين اكليبر نعم. موي فخه با ديف تي آه، روح تيدغا ولا مو ديف تي لير فخه با بكن مو ديف تي تيدغا فخه با خول سر حاج مالك ديف تي تيوفل موني خول نك بو امي تيوفل booy xool àddina àddina dafay da ngay da doo ko xool xoolinu ku mer da nga koy sopp mu ni nit nag buy xool àddina xoolinu ku ko sopp du jëf safaan ci àdduna mu ni Seydi Xaaji Malick walil jismi min kullil gada tayibaatuhu wa yajxalu ma anna risqu duna alaalihi mu fexe ba yaram moom itam mu poñe ko ba du ko lekk loolu xaram toujours yaram dafay fexe ba muy lekk lu dagan mu ni Seydi Xaaji Malick moomu nag ak ndar mii ñu njëkk tudd ñaari milieu bii ak jëmm ji ci diggante boobu la Serigne Babacar Sy yàlla. alhamdulilah nee moo tax Serigne Babacar Sy amoon équilibre bi nga xam ne moom la amoon ci dundam. Mhm. bu jëfee rek nga xam ko bu waxee rek nga xam. tabarkalla alhamdulilah ah, yaakaar naa loolu am na solo sëñ Makhtar Ngom yaakaar naa ci eh, leeral boobu ci sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu mbokk yi di leen fàtt rek yéen a ngi wéeg ñun ba léegi fii ci eh, rajo municipale eh, de Dakar rajo RMD 95 point 5 ngeen ci ànd ak seen mbokku taalibi Mouhamadou mun Muntaka waaye tam ni ma ko waxee tey ñu wuuti fii lu jafe sax ni ma koy waxee saa su ne sëriñ Mara Cissé ci jotaayam bu am solo bi di jotaayu Wadduha mu mel ni itam mbooleem association association bi yëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel association Wadduha Wadduha solidarité ñoom it ci waxtu bi saa su ne itam dañu bàyyi xel euh, fépp ci gox goxaan gi kon ñu ngi leen di euh, ziara bu baax a baax a baax euh, mu mel ni toon ni ma leen ko waxee rek waa daayira ansaaru diin bu Bagdad moom ñoom ngeen dégg ñuy wéel ba léegi rek ci jotaay bi le ni ma ko waxee ci kanam tuuti itam daañu ubbi li nga xam ni moo di téléphone bi ki 33 821 14 85 33 821 14 85 incha allah ci kanam tuuti rek daañu ànd ak euh, sunu euh, technicien bi wàllu xarale bi di sëriñ Malick Sidibé incha allah mu daal di tàbbil gaañ yi euh, kon ba léegi dañuy ànd ak ki nga xam ne dama koy jox kàddu gi boobu ba léegi rek muy sëriñ Omar Diop sëriñ Omar mu mel ni tamit gis nañu tamit bés bi tam euh, mën nañu wax ni kenn du dem ngeen kenn du dem ngeen des ndax sans euh, yéen day xaw doy waar mi wàllu organisation bi. Mm. organisation bi bëgg nañu xam fi mu toll ak euh, bërëb bi fan lañ ko war a defee ngir tam ñi ngi bàyyi xel man man mën a bu ñuy ñëwit ba ñu am jafe-jafe mm. bëggoon nañu xam gox gox bi carrément mën nañ joxe adresse bi mu gën a leer fan la. Mm. Ah, alhamdulilahi rabbil alamin yaakaar naa ni fu ñuy defee milieu bi. Mm-hmm. nakare wut a xam mm-hmm. ndax ku ñëw ba si euh, maire ji de caaray kaw bi mm-hmm. ku ñëw rek boo martaloo tuuti rek mm-hmm. insha allahu di nga di nga gis programme bi da gis programme ndax daanaka sorantawul alhamdulilah sorantawul sorantawul fan ngeen toll ci préparation bi organisation bi fu mu toll ndax lépp yemb na loolu tamit organisation ndax mbooloo ci boppam euh, bu ñu nee tàkkusaanu sëriñ Babacar Si wax dëgg yàlla ñëpp xam nañu lu lu yaatoo yaatu lay nekk foo leen toll ci organisation ah, alhamdulilahi Euh, yàlla euh, dogal na sotti na. Mhm. ndax depuis euh, deux mois ñu si nekkoon. Mhm. di di si réunion. Mhm. di si waxtaan itam. fa tabaarakallaahu yàlla def na ñu. Euh, ñu lijjanti lu le lu bari daanaka lépp li si waroon def wala lépp liñ si li si war a am. yàlla def na nañu euh, waxtaanee nañ ko ba lépp sotti na alhamdulilah rabbil alamin lépp sotti na. lépp sotti na waaw lépp sotti waaw xam naa ni foofu ndax faw ma déggaat la tuuti ndax ci kanam tuuti tam bu ñu doxee la tuuti rek programme bi faw nga wax ñu ne mu tëddee moo tax dama ne naa ànd ak yow foofu tuuti su ko defee dinaa dellu si waat léegi nag am ak yow programme bi loo xam ni incha allah daañu ñu bën euh, wax wàccaayu bés bi ko teg nga gën ñu ko mën a leeral dañuy ànd ak oustaz Ismaïla oustaz euh, mu nekk loo xam ne am na solo yaakaar naa ni dégg nga li euh, sëñ Maxtaar Ngom wax euh, mu nekk loo xam ne wax fa dëgg yàlla muy ay xiste yoo xam ni yu leer la ñun ñëpp ñu rafetlu ko mm-hmm. waaye mu nekk loo xam ni Euh, moom laay wax ni euh, faw ñuy dellu si tuuti oustaz di di fàttali li nga xam ne moo di bindu mag ñi. Mhm. ndax dafa mel ni loolu ci jamono dafa mel ni lu xaw lu wàññeeku lool lool lool lool. Mhm. ndax euh, loolu itam xalaat nañu itam ba ci lekkool yi war nañu bindu mag ñi di leen delluwaat ci lekkool bi. Mhm. lu ci demee gis nga ni kilifa gi téere yi nga xam ne wax fa dëgg taalif nañ. war nañu mën a gën a jàngal ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne xëy na ñoo ngi tàbbi ci lekkool yi bind mag ñi. loolu tamit oustaz bëgg naa ñu waxtaan ci bu baax a baax ci cadre boobu wàll woowu lan nga ci gëna mëna euh, indil askan yi wanam gën leen ci ah lu rafet la lu bax la. Mhm. Euh, sank ma ngi dégg nga naan euh, di ko wax ak sas Maxtaar. Mhm. ñu ngi koy ndokkel ci xam-xam bu rafet bi. Mhm. mbindu mag ñi bañ ko wara a ci école yi dafa yàgg. parce que léeg-léeg ma dégg ci réew mi ñu ne xale yi amuñu référence. ah ñi ci am waroon ko xam war a jaar ci fiñ jaaroon. parce que jàngaluñ leen ñoom liñ fi bàyyi. te ñi leen ñi ñi téere yi ñu leen di jox ci école yi ñu koy jàng référence ñooñu ñu leen di jox seen i xam-xam ñooñu matuñu référence. waaw kii nga bëgg mu roy ko te lim def du ko jàng. Mm. te ki nga koy jàngal ni mu mel bëggoo mu mel ko. moom ki mu xam su ñàggee ko lay toppandoor. Mm-hmm. tey amul néew na ci réew mi 98 mhm. pour cent ci xale yi. Mhm. nga dab kenn ne ko boo màggee noo bëgg a mel mu ne leen di sëñ Babacar wala sëñ Fallou. parce xamu ko. gis na ko ci photo ni dégg na ko rek. mais yan cri yan cri la am. Mhm. yu mën a basé wu ba dem ah da koy rey. jàng ko ci benn téere. sànq dégg naa ngay wax ne ñoom bu ñu waxee tey day mel ni fii ba santab day mel ni lañ ko wax. waaw xanaa xamuloo ni képp koo xam ne yàlla nga la may ngay waxal diine. Mhm. te sa wax nga basé wu ko ci alxuraan li ma la waxoon sànq. ci jikko yi sëriñ Babacar si. Mhm. jikko ji boo gisee ñëpp rafetlu ko. parce que dafa seet. Mhm. li alxuraan mel ni nit nit ni la nit war a mel. moom mu mel nii. fekk. kim référence am di woy juram di kilifaam ni alxuraan doon ni loolu la yonent bi mel mhm. moom it mu ñëw nekk ca genn góor gaa góor bu baax mos nañu wax ne si laaj maag dafa waxoon ne mhm. man Malick daal fekk naa def yëpp ñu def ko ba pare wax yi yëpp ñu wax ko ba pare mu wóor ma ne waxaat moo waxaat rek moo fi am defit rek moo fi am ma seet yi yonent bi doon def ma ne ci tabarkalla mu noppalu yonent bi doon def ma ne ci parce def yëpp defit la am mhm. loo fi mën a def defe nañ ko noo bon bon bol mënoo bon ba gën a yées ñi alxuraan di xas mhm. loo baax baax mënoo baax ba gën yonent bi alhamdulilah kon defit rek nga mën a def mhm. waaye ne ñiñ bëggoon ñu mel ko su fekkoon ñooñu dañuy jàngale seen jaar-jaar ci téye ci école yi xale yi mën leen a xam soo gisee lu lu Sëñ bind wala lu Sëñ Hajj Malick bind boo koy jàng nga repéré wul ci alcorane mim jëlé mom alcorane yàlla mi wax alcorane dafa nekkoon dembu xam li xew. deug la xam li xew tay xam li xew ëllëg. ñi koy déglu di nettali ay waxam lañuy wax su ñëwé day melni parce que waxon nako dem. waaw lay deug la. alcorane ñetti jamono la wax. netti la ñu yonent bi li passé won wax ko ci giru dundam ni mu wara doxale wax ko gannaawum li fi xew. deug la. ak lute bu ñëwee même bu fi newul moom mi indi alxuraan nit ñi lan la ñu war a euh, attewoo ci xew-xew boobu alxuraan indi na atte ba boo koy wax nag di ko nettilee noonu ko alxuraan waxee mhm. sa wax dafa yéem ki nga xam ne moom jàngal alxuraan day defee ne yow da nga yaa bopp wala da nga xam ne ñëw ñëwgul fekk na ki wax mhm. xam-xam bi jar nettali te di ci repéré wu mooy alxuraanu karim soo amee jikko jëlee ko ci mhm. foo dem ñu naw la mhm. soo amee xam-xam di ci waxee boo waxee ñu déglu la soo amee comportement di déglu ñi di déglu yonent bi ni ni alxuraan wax ne ni la comportement mel boo génnee ñëpp sopp la mhm. alhamdulilah su la ñett yi rëccee nag léegi tey ñu xeeb la xanaa nga wuti xaalis nga xam ne ña topp yàlla du tax àdduna mooy tax te yàlla ñu yàlla musal ci boobu euh, ñu bég bu baax a baax a baax tabarkàlla ci question yi rawatina sëñ Maxtaar wax dëgg yàlla mënu ma ko ñàkk félicité parce que wax naa la sànq bi ñuy dooge su ne topp ci kawam rek lu mu wax ñu déglu ko euh, amuñ droit sax ñu ñuy may kàddu xanaa mbaax ma tax ñun jël kàddu rek da ngaa baax rek da ngaa baax jërëjëf oustaz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 ndeysaan jërëjëf euh, sëriñ euh, Malick Sy Dibé jërëjëf sëriñ euh, Bara Diouf Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal bu baax a baax a baax ak mboolem ñi nga xam ni ni ma koy waxee saa su ne itam ñoo ngi jàpp ci taxawaay bi di ziar mboolem ñi nga xam itam ñoo jàpp ci personnel bi Wadduha ca diwaanu Géejawaay ku ci demee sëriñ Omar Diallo ñu ngi koy nuyu sëriñ Malick Sow di nuyu bu baax Cheikh Tidiane Gadiaga ñoom ñëpp ñu ngi leen nuy waat bu baax ñi nga xam ñu ngi ci mboolem gox goxaan di ñu bàyyi xel waaye tamit di leen fàtt rek nii sëriñ mbokk yi ma leen koy waxee saa su ne di jàppalanteeg euh, jaamu yàlla ndax boo leen gisee waxtu bi saa su ne moom moo fi doon teew seen jotaay bu am solo bi di seen jotaay Wadduha 22h jàpp 0h waaye tam euh, tey ñu teewal ko fi waaye tamit euh, di dimbalanteeg jaamu yàlla yi ngeen mën koo fekk rek ci diwaanu Géejawaay Géejawaay nag boo leen ñëwee en face lycée Maam Limaamu Laay foofee tabarkalla dinay jàppalante ci wàllu li nga xam ni cuuraay yi nga xam ni am na ñoo xamante ni balaa ñuy nelaw jafe day daal di am luy woyofal yaram tabarkalla buñ ko jëfandikoo rek incha ne la waaye tamit lu demee ni wàllu frotté frotté bi nga xam ni askan bi yëpp a nga koy lim lépp rek ci alquranu karim waaye tamit mu génne loo xam ni lu mu lu mu ci wàllu ndoxu cité di jàppalante askan wi euh, ci wàllu li nga xamante ni siruna euh, li nga xam ne tamit lépp rek ci wàllu paj paj mi nga xamante wàllu cosaan bi waaye tamit ci wàllu ñaan tamit di taxaw askan wi ci wàllu euh, listixaara ci wàllu xalwatu loolu yëpp di ci jàppalante jaamu yàlla yi kon ñoo ngi koy ñaan bu baax a baax waaye tamit moo am savon bi nga xamante ni tamit képp koo xam ni tamit ndoxum cité yaa ngi lay laalee savon boobu tamit euh, dina incha allah picc yooyu da nga gis ni da dina tàggoo ak yow nu mu gën a gaawee mu mel tamit ay savon ouverture muy saabu yi nga xam ne da lay ubbi ak parfum ouverture yi mu nekk loo xam ne am na solo kon balaa ñu def leen rek dañuy ànd ci ligne bi ci 33 821 14 85 mel ni am na ko fas yéene rek dugg incha allah rek daañu ànd ak moom ci ligne bi mu mel ni dañuy fas yéene sax ubbi ligne bi téléphone bu fekkee jàpp ne salaamaaleykum allo salaamaaleykum. allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay sant ñu ngi lay fay. alhamdulilah tur ak fay woote. man la soxna Ndiougour Ndiaye waajur Omar Diop. ah bismillah waa bismillah. waaw laa soxla woon. waaw mu ngi lay dégg ne Omar si wuyu ko. waaw ah. kay salaamaaleykum. waaleykum salaam Omar. na ngeen def yaay. naa def. ñu ngi fi alhamdulilah. naka biir tey. alhamdulilah ñu ngi rek alhamdulilah. waaw kontaan nañ trop ci émission bi mooy nuyu oustaz Matar Ngom. Mhm, mu ngi koy dégg. ak oustaz Ismaïla Cissé. ñu mhm. ngi leen jox seen wàccuwaay. Mhm, dëgg la leen ñaanal yàlla fa ngeen bëgg mbir mi egg fa yàlla na ko fa yàlla eggal. ci dara jërëjëf amiin moom sax saan bi. amiin ñuy wax ne nag kontaan nañ trop surtout ma oustaz oustaz Matar dañ koy dañ koy bégee. wallaay kontaan si moom. di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla fu mu toll. fu mu bëgg a egg yàlla na ko fay yàlla eggal. ndax wax dëgg yàlla taxawu nañu. Mhm. ñun waa ansaaru diine yëpp. wallaay ndeysaan di nuyu Ibrahima Pouy. Mhm. ak Arsane Thiam. Mhm. ak Soxna May. wax dëgg yàlla ku lim sax da ngay juum sama xol dafa fees. maa ngi leen di ñaanalaal fu ngeen bëgg a egg yàlla na ngeen. yàlla na leen fa yàlla yóbbu. amiin soxna Ndeye maa ngi faa soxna Omar mooy soxna Ndeye. <laughs> allo. allo bisimilah bisimilah. soxna si na def. naaj. da ngeen def ak coono yi. jàmm rek. waaye ni si jàmm. ni si jàmm bu baax. alhamdulilah. allo. allo bisimilah mu mel ni kooku rëcc na ci ligne bi waaye di xaarandi ba léegi rek mbokk ni ma leen ko waxee tey mu mel ni euh, daayira bi nga xamante ni muy daayira ansaaru diin bu Baxdaat ñu nekk rek tey ci plateau bi mel ni am na ko nekk ci ligne bi nañu ànd ak sëñ Malick si débit ñu ci ligne bi mën nañ leen tàmbali jël waaleykum salaam wa ku baax sëñ Ba. ah ñu ngi lay ziar kooku. ñu ngi ziar Diagne Makhtar Wakaam. Diagne Makhtar wax ah, ah ñu ngi lay ziar Wakaam. Ah, dañ doon woote rek doon feddali suñu kóllëre Ahmara. jërëjëf jërëjëf ah, di ko ñaanal eh, yàlla li muy def yëpp yàlla teg si loxoom. amin amin yaa rabbal alamin. te di leen ñaanal tamit te yàgg nañ leen topp depuis Siwal FM. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. yàlla na yàlla yokk te na yàlla fay sa invité moom seen waxtaan bi rafet na. tabaarkàlla jërëjëf jërëjëf hmm. lii rek la bëggee ñi nga xam ne ñu ngi yëngu si waa kër Mame Babacar. jërëjëf jërëjëf ah, yàlla na yàlla taxaw jàppale mboolem julli amin amin ya, rabbal alamin ah, jërëjëf baax akay ziara ñu waa Wakaam ñu ngi koy nuyu bu baax ak mboolem yi nga xam ne rek ñoo ngi bàyyeekoo ci diwaanu Wakaam mbokk yi di leen fàtt rek ñu ngi wéeg yéen ci téléphone bi spécial euh, plateau bi nga xam ni waa daayira Ansaaru Diin euh, waaye tamit euh, am parrain bi nga xam dañ ko parrainé Serigne Mara Cissé tàkkusaanu Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu muy le premier muy samedi le 8 avril 2017 muy première édition bu njëkk bi incha allah kon rek mu mel ni ubbi nañu téléphone yi mën nañu ànd ak yéen yéen ci 33 821 14 85 bu fekkee am na ko nekk ligne bi rek bisimilah ñu ànd ak moom bisimilah. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di ziar. ñu ngi la koy delloo lu bëree bëri. ñu ngi leen di baalu ak bu alhamdulilah ñu ngi la koy baal tur bi ak fay woote ku baax. Euh, man Amidou lii. Amidou. bokk ci daayira Ansaaru Diin bu baax ah bismillah waa ah, kay ñu ngi lay dégg. Ah, ñu ngi nuyu kilifa yi fa teew. waaw mm-hmm. ah, di nuyu Serigne Ismaïla Cissé. Mm-hmm. di nuyu sama Serigne Maxtaar Ngom bu baax a baax. Mm-hmm. bu baax a baax. di leen wax fi kontaan nañ ci émission bi bu baax rafetlu nañ seen teewaay foofu bu baax. waaw di sant ak gërëm aussi Serigne Mara Cissé bu baax a baax ndax taxawaay am na solo trop ci géejawaay. di rafetlu jikkoom bu baax di lu taxawaayam bu baax. di ko ñaan yal na yàlla yokk ko bu baax a baax ci daraje Sidina Muhammad ah di leen wax ni nag di waaj xanaa suñu bis rek waaw waaw di ko waaj bu baax a baax liñ ci waroon def yëpp def ko ci kàttanu yàlla di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may teewee bis bi rek daraje Sidina Muhammad waaye liñ ci waroon a dox liñ ci waroon a wax yëpp yamb na fi mu ne nii ndax sama kilifa yu baax yi toog foofu liñ ci waroon def yëpp def nañ ko ci mm-hmm. waa di nuyu tamit sama yaay yaa awa bu baax a baax di ko sant ndax am na taxawaay bu rafet ci daayira bi ndax uuf na njaboot gi uuf gu war bu baax a baax di ra di nuyu sama kilifa Alsaan Thiam bu baax ak sama président euh, Ibrahima Pouy waaw di kontaan ci bu baax a baax mene wu ñu wax bu baax a baax waaye da leen sant xol yee sedd rek bu baax a baax émission bi yàlla yàgg yàggal seen taxawaay bu baax a baax jërëjëf kontaan naa bu baax a baax. waaw di nuyu sama ndongo googu topp foofu di Omar Diop. <laughs> waaw di jaar bu baax a baax sama sëriñ Matar Diop bu baax a baax. wax dëgg yàlla moom it taxawaayam rafet na trop ci daayira yi wax dëgg yàlla. waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm yàlla na yàggal yàlla na yàlla yàggal taxawaayam bu baax a baax kontaan nañ rafetlu nañ lépp wallaay Serigne Babacar moom lu nit mën a wax ci moom rek du doy dëgg waaye lu nit mën a wax ci moom du doy lu mhm. nit ci moom it du doy ndax ci koy yónent dee nekk ci moom lii ci wax sànq rek ñu ngi ciy rafetlu bu baax a baax mhm. ñu ngi def suñu kémt laay kàttan ndax roy leen yombut waaye nit ki day jéem rek jéem bu baax baax luñ ci jot am ñu ngi koy sant yàlla bu baax ndax récci wuñ ko wallaay ñu ngi kontaan bu baax a baax jërë ngeen jëf wallaay yàlla yàlla yàggal seen taxawaay bu baax a baax Cissé nag mënu ma koo fay wax dëgg yàlla Cissé mënu ma koo fay sama mag la sama xarit la mi may ñaanal mi ngi may teg loxo fu ma nekk wallaahi yàlla yàlla yàggal taxawaay bu baax a baax ngom it daa bëgg sama njabootu kër wax dëgg yàlla ku bëgg sama waa kër wàllu wu ne mu ngi leen koy taxaw wax dëgg yàlla yàlla yàggal yàlla yàlla yàggal seen taxawaay rek wax dëgg yàlla waaye nag yàlla yàlla yàggal seen taxawaay rek bu baax Ablaye Sow. jërëjëf kontaan nañu baax. alhamdulilah ñuy kontaan ci mbokk moomu ba léegi rek mu mel ni tey nu ma ko waxee waa daayira ansaaru diin hmm. bu Baxdaat waaye tamit plateau spécial Wadduha gis ngeen lay doxee rek tey si Mara itam ñu pare ne ko euh, bés bi nga xam ni muy euh, le 8 avril 2017 ca Baxdaat muy hmm. première édition daayira ansaaru diin hmm. bu fekkee am na ko nekk ligne bi euh, mu ngi mel ni am na ko nekk ligne bi rek dañuy ànd ak moom salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatulah. bu baax kii ñu ngi ñu dellu ziar bu baax a baax. alhamdulilah tur bi ak fooy wootee. Jibril Combar la. ah c'est Jibril Combar bisimilah. woote Géejawaay Marsaf bokk daayira Muxlisina wax a ah, bi ziar nañ la. Oustaz Makhtar ñu ngi lay déggee. naka waa kër gi. waa kër gi yëpp a ngi ci jàmm alhamdulilah. ñu ngi leen di béggee yéen itam bu baax baax. ñu ngi lay ziar bu baax a baax yow tamit Oustaz. Ah, tabaarakallaa di kontaan bu baax a baax ci yéen seen taxawaay. yàlla xam na ne ñoo gën a bég ñoo gën a bég. kontaan nañu bu baax a baax. ndax yow yàlla daa dogal mënuñ laa jërëjëf jërëjëf Thiombal. nga nekk kenn koo xamante ni bi ci boo ñu ci daayira ba rek. jërëjëf jërëjëf. waxtaan yi am am solo yi ñu fay jàllale waxuma waxtaan waaye li ñu ci wàllu. jërëjëf jërëjëf. lépp rek boo ji duggee rek nga xamante ni bi ñu ndaw ñi dañ ci jëlee lu bari bari. jërëjëf Thiombal jërëjëf. ndax man defe naa bu ñu dee mañ naan ma ustaas yooyu yaa tax ndax lépp loo xamante ni bii rek dañ koy wax ci diine ci yow lañ ko déggee kon rafet na ñun ñi nga am contentement di ci bu baax a baax di nuyu ñun ñëpp nag jërëjëf kontaan nañu bu baax bu baax a baax wallaay kontaan nañu bu baax sama gor sama xarit Arona Sow wallaay ndeysaan jërëjëf mm-hmm. waaw ñëpp rek daara bi soxna Aminata Gajare yaay nag yi mu ñëpp ñu ngi leen di ziar ñëpp gaay yi mu ngi déglu instant bi ñëpp bëgg nañoo duggee yàlla xam nga wallaay ndeysaan lay ndeysaan ndax fii da ngaa sori ci ñun loolu saa lay yéen da ngeen a baax kenn mën na fay nga nekk kenn ci ñun yàlla xam na ko ba ginnaaw bi ñu ci chaque jour wallaay ndeysaan ñu la fayee yàlla xam na ko baax a baax ci yéen waaw waaw bëgg nañ jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla taxaw yàlla yàlla sàmm la ci dara ji ñu ci yàlla ma xam ne waaw ziar naa ñëpp waaw ah, li ñu nekk plateau bi incha allah dinañ ko déglu ñëpp jërëjëf waay jërëjëf Thiombane jërëjëf Thiombane jërëjëf mbooleem gox-goxaan yi nga xam ñoo ngi bàyyi xel ci 95 33 821 14 rajo municipal de Dakar salaamaaleykum mbokk mi rahmatullah alhamdulilah ku baax tur bi ak fay Alsaan Thiam lañ koy wax maa ngi wootee ci Medina Gunaas Medina Gunaas bisimilah jërëjëf suñu Alsaan sëñ Alsaan ziar nañu ñu leen ziar Xaaji Maxtaar ndax nu ko ziar bisimilah mbaa yéen ci jàmm. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah ah, ñun ndax dëgg yàlla ñu ngi dégg loolu ci émission bi. jërëjëf jërëjëf Thiam. di jiital ci nuyu bi kilifa bu tedd boobu nga xam ne mooy sababu jotaay boobu muy sëriñ Mara. Eh, wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. ñu ziar ko wàcce ko ci wàccuwaayam melal ko yàlla yàlla yàlla sàmm ko taxaw ko. amiin amiin barke yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla ñun amuñu fayam wax dëgg yàlla amuñu fayam nit ku yàlla baaxal la nit ku bëri sutura la mm-hmm, mm-hmm. nit ku bëgg nit ku dal di nit ku social aussi mm-hmm. nit ku bëri yërmande ku dimbali te yàlla tax dañ koy ñaanal yàlla bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla tey jii bari na loo xam ne ñemee rek moom bokk na ci ñuy dee parce que dafay encourager jeunesse boo xoolee programme boobu bañ ko jàppee bokk na ci ñu ñu njëkk a waxtaanal mhm. euh, man ci responsable daara am dénn bi ci laa bokk mhm. mais bokk nañ ci ñu ñu njëkk a waxtaanal mhm. waaye daf ñoo may fit conseil ni conseil yu rafet dëgg yàlla yokkuñu lu bari daal ci cadre expérience kon dañ koy ñaanal yàlla bu baax a yàlla yàlla taxawu bis bi buñ demee ba def ko parrain bi moom euh, dama naan sax lu wallaay parce que lu jiitu lii daf ñoo yàgg a taxawu te fu mu gis ndaw buy neb nebi di jéem a góorgóorlu ak tuut ci wàllum aliyo ak tuut ci diine mhm. dana fexe daf teg la loxo kon kooku nag ku mel noonu amoo lenn loo ko mën a fay wala amoo kàttan boo ko mën a fay benn damay ci faral di dégg sama benn mag naan ku la defal boori boo ko mën dafay booli waxal ko booli mhm. wala mën ku la defal booli koo fay boolu teraanga boobu mhm. fexeel ba waxoon ko lu toll ni boolu ci teraanga mhm. moom maaraam moomu loolu rek mooy sabab ñu tuddee ko bis bi lu ne ci wàllum boor bu ne ci encouragement mhm. ñu bëgg a feeñal tuuti rek suñu asaka yéena lañ bëgg a feeñal ci moom Mara Cissé pour woon ko ne rek li ñuy lu ñuy defal bëgg nañ ci mooy sababu kat ñu bëggoon feeñal ak tuur rek jël lay yëfi ne bis bi tuddee nañ la ko ñu ngi ciy ciy woo nag képp kuy soppee Serigne Mara Cissé ñu la ciy woo. muy samedi biir ñëw incha allah ñu ngi la ciy woo ñu ngi la ciy sàllal loxo. bëgg ñëpp képp ku jàppandi wala képp ku oyof ñu lay ñaan nga teew di. ngir yàlla ak jëmmi Mara Cissé. ndax lu ko waay def yàlla. Euh, méritoonu lu ëpp loolu mënuñu kaa fay. waaye ñu ñaanal bu baax suñu kilifa yooyu toog xaajal Makhtar Ngom moom it di oustaasu daayira bi conférence bi di takkusaanu Serigne Babacar yi moom moo koy waxtaan moom mooy conférencier bi alhamdulilah muy Serigne Makhtar Ngom moomu toog Serigne ma kooku toog itamit Serigne Ismaïl Cissé moom it kilifa la ci ñun kilifa la ci xadara bi moom it aara moom it alhamdulilah dafay taxaw Omar Diop tamit suñu rakk moom it ñu ñaanal ko yàlla bëgg nañ ci émission bi bu baax a baax jërëjëf jërëjëf xam ne bii di ñëw la incha allah fekkee fii ci tëli Baxdaad bi mm-hmm. eh, eh, boo ñëwee ba ñetti mbaar prolongé boo passé mairie Djiddah Thiaroye Kao bi rek boo taxee di nga seen tant bi ci kaw tëli bi la am na solo mm-hmm. ñu ngi woo ñëpp rek di kontaan ci yéen bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla yàlla doon leen sutura ñu ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi am na solo daa na ngay bi wax dëgg yàlla ni nga présenté émission bi am na solo rafet jërëjëf bu ko defee ñu wujuwaale ci secrétaire bi jërëjëf ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax mbokk yi ni ma leen ko waxee daayira ansaaru diin bu Baxdad mbokk yi ñooy wéy ba léegi ni ma ko waxee tey tey ci euh, spécial Wadduha bi nga xam ne saa su ni plateau bi nga xam ne 22h bu jot Serigne Mara Cissé fii mel ni tey dañ ko jël ne bés bi nga si et Serigne Babacar Sy 33 821 14 85 salaamaaleykum salaamaaleykum ah, waaw nu ngi lay ziar ku baax yokal kaddu yokal kaddu gi yokal kaddu gi tuuti. man la elhaj mod Sall. ah elhaj mod Sall. waaw ñu ngi leen ziar bu baax. ah Sall ñu ngi lay nuy bu baax Sall. mom soppey serigne Mara la. waaw ndaysan waaw bo xamne mom ma sha allah dañu tuddé Mara serigne Mara rek ñun mom dañ ci sopp dañ ci sawar bu baax la. wallahi wallahi wallaay daan dinaa lay baye xel lu bare bare ci hmm. whatsapp bi waaye yalla def na déggante guñu. waaw déggante guñu ma sha allah man ma ngi déglu bëri sëñ bi maa ngi rafetlu macha allah plateau ndeysaan rafet na lool kaddu yi rafet na tegu na ci xam-xam. tabarkalla. waaw macha allah rek sër moom yi rek ñambaas yàqu ko. waaw moo tax rek ñu duggoon rek pour gën leen wan ne encouragé ci mbir mi. am na solo gën a dund diine ak alquran. ndax mm-hmm. Mara moom nekk na koo xam ne tax nañu gën a alquran. waaw wallahi waaw moom tax na ñu gën a am ci ba nga xam ne. dëgg la dañuy jum صح نيسان واه والله الحاج مرسل كنت نونو دي <laughs> امين يا رب العالمين امين يانكو يالا تخاو امين يا رب العالمين يالا غنا ليرال خم خم الحمد لله الحمد لله الحمد لله جرجف جرجف سلام جرجف سال الحاج مرسل koy nuyuwaat bu baax a baax El Hadj Modou Guèye ñu ngi koy nuyu sëñ Mouhamed Diop euh, goro ñu ngi koy nuyu waaye tamit soxna ak yaa aram ñu ngi koy euh, koy nuyu bu baax a baax ci diwaanu Tëngéej 33 821 14 85 salaamaaleykum. maaleykum bu baax kii tur bi woote. waaw Khalifa Ababacar Sarr lañ koy wax. waaw ah, kooku Khalifa Ababacar Sarr bismillah. Ah, ñu ngi ziar mbokk yi mbokk yi ñu foofu. ah sëriñ Babacar. la. Oustaz ñu ngi ziar baax a baax a baax. naka njaboot gi yëpp. sant alhamdulilah alhamdulilah. yéen a ngi ci waajtaayu bis bi. waaw ñu ngi ci wax bis bi rafetlu nañ seen toogaay foofu. jërëjëf rafetlu nañ seen toogaay bu baax a baax a baax. alhamdulilah xam nga gaa yooyu dañoo xamut dañoo xamut. Mm-hmm. ak ñi ñenn ñuy déglu. Mm-hmm. mu mel ni yow yow li nga def si ñun. Mm-hmm. ak oustaz Ismaïla. da ngeen fekk ñi nga xamante ne dañ daan bëre. ngeen jël leen ci yoon ci yoon bu nga yàlla ju saf saf fekk ñi nga xamante ne mënuñoo def leneen ngeen jubbanti leen bañ jub man waxuma sax si tàkkusaan bi si yéen laay wax li ngeen def si ñun billahi wal kitaab li ngeen def si ñun yàlla rek moo leen mën a fay te da di fay ndax ay nit yoo xamante ne dañoo tegu woon si yoon woo xam ne kenn comprendre li mooy lan ngeen jël leen jubbanti leen ba tey si ñuy dox nañ sax jël seen dënd jël seen dënd di ko génne ndax muy génn ndax am nañ am nañ waaw ñu ngi wax nag programme bi ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax a baax. waaw ku si ñëw moom di nga gis loo mës a gis bu neexee yàlla. mu mel ni sar mu mel ni kon yow moom say nelaw jeex na jamono ji. i déggoo li ma la wax man dama dul nelawate sax programme bi rek lay xalaat may wax ak yàlla xam na ko yàlla xam na ko. jërëjëf Sarr jërëjëf Sarr. waaw ñu ngi leen di jërëjëfal di nuyu ñëpp di nuyu sëñ Maxtaar Diop. jërëjëf waaw Oustaz Ismaïla ñu ngi koy ziar bu baax a baax. ñu ngi jaar. jërëjëf waaw di jaar ñoom Ibrahima Mopp yi Alsaan Caam yaa fayam duñ ñu taxawoo ci mm. ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen xam-xam dañ leen a bàyyi suñu kanam ba ci kanam kanam jërë ngeen jëf waay jërëjëf sëñ Babacar Sarr jërëjëf 33 821 14 85 33 821 la 14 85 muy numéro rajo municipal de Dakar 95 point 5 mbokk mi ci ligne salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw ku baax wàññi rajo bi ngir déggante bi gën a mën a neex rek da koy wàññi. waaw kay waaw wàññi ko bu baax rek. la koy delloo bisimilah. ñu ngi baax a baax a baax. ñoo ngi nuyu Oustaz Makhtar moom toog foofu. a baax. tur bi ak fooy wootee ku baax. waa kii xaaral mère Awa Seck moom ba juba saw saw saw ay waay baay booy maa ngi ñaan yàlla mënuma sax wax tax bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan Makhtar maa ngi leen di ñaanal yàlla ci jaay bi boobu àgg yàlla na ko yàlla àggale amiin amiin te boole ji kontaan naa ci yéen kontaan naa ci yéen yàlla yàlla ba ci yéen da ngeen maa fekkoon ci tarixa bi ngeen ma fekk waaye li ngeen def ci man hmm. xaw ma xaw ma nu mu toll man eh, alsaan bàyyi leen ak yàlla ngeen tëbal takkusaan bi takkusaan bi yal na ko yàlla moo tëbal ñoo ngi ci woo ñëpp Maxtaar du maa ngi lay gërëm di la ñaanal di la sant di ñaanal Maxtaar Ngom di ko gërëm di ko sant di ñaanal Ismaïla di ko gërëm di ko sant sax dama dama leen di ñaanal yàlla gërëm taxut ñaan gi ma leen di ñaanal hmm. dama ko ci bis sama xol am na fu mu commencé waaye am am Alassane Thiam koy ñaanal yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla ñaanal yàlla mm-hmm. waaye kuy kuy maa ngi koy ñaanal di leen di ñaanal di soxna si alhamdulilah soxna si waaw ah, allo euh, parrain bi nag Serigne Mara Cissé nag mu mel ni nag euh, ah tuddee ngeen nag ku jar a tuddee bi taxawaay bi wallahi wallahi ah, wallahi sëriñ Mara Cissé wallahi ndeysaan kay Mara Cissé kay yàlla rek lañ koy bàyyee wallahi ndeysaan yal na ko yàlla fayal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may njaareel sama jabootu bopp jërëjëf yal na yàlla yal na yàlla wéral seen guddal fan amiin amiin Maxtaar jërëjëf jëf yow ñu ngi lay ñaanal bu baax wallaahi wallaahi yàlla guddal fan wi te wéral cër yi. amiin amiin amiin ah, amiin mag mu baax nga xam nga daayira ni méttee ci bés bu ne ci sedd beeg soriwaay beeg dox bu métti bi te fuñ nekk gis la ci suñu pegg. wallaahi wallaahi dafay dalal xel parce que nit diine rek lislaam rek moo maye way jur ak doom di bokk grand place te ko fa fekk du leen jéppi diine lislaam. waaw ah, moom la ñu sant yàlla biñ ne woote loo biñ màggee fekk ñu ku ñu fekk naw ñi ci li wér te mooy man man foofu daje daje sëñ ma wooyee dinaa ci dem suñ ma wul dinaa ci dem <laughs> ndeysaan ndax ku sëñ Babacar rek mën nga ko tuddee wallaay wallaay ndeysaan am na solo wallaay jërëjëf soxna si amiin yaa rabbal aalamiin amiin ma ni tey kontaan nañ bu baax saw. tabarkalla tabarkalla tabarkalla saw jërëjëf. Mm-hmm. di nuyuwaat bu baax a baax waa diwaanu Parcelles Assainies unité 1 euh, ba 26 ñu ngi lay nuyu soxna mm-hmm. Suwaadu soxna Suwaadu nu ngi koy nuyu bu baax mm-hmm. moom it di taalibe Sëriñ Babacar Si mu mel ne am na ku nekk ligne bi 33 821 14 85. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, ñu ngi leen di ziar. ñu ngi la koy delloo lu bëree bëri ku baax. waaw ah, man la Kéba Koli. waaw ah, Kéba Koli bisimilah. ñu ngi lay ñaan waaw man la Kéba Koli. Serigne Kéba ziar nañ. ñu ngi delloo ziar bu wér. naka yitte. bokk ci bokk ci ansaaru diin. la hmm. a ngi waaj bis bi. waaw ah, ngi waaj bis bi nelawatuñ de. Ah. dëgg yàlla nelawatuñ. bis bi nar na solo de. wala wallaay dina am solo Mara Cissé moom amul leen luñ koy wax. ndeysaan ndeysaan. ak li sëñ Alsaan jot rek doy na. ndeysaan wallaay ndeysaan. waa ak yaa aw mi jot a dugg lu ñu wax rek doy na. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. waaw di nuyu suñu président tamit Ibrahima Pouy. wallahi wallahi wallahi. xëy na bëgg naa dugg tamit waaye dafa xat. dëgg la dëgg la ndeysaan. ñun ñii ñooy ay xale ñun dañ koy buuxante ak ñoom. wallaay wallaay ndeysaan. waaw di nuyu suñu jigéen ñi nekk si daay. ndeysaan ñëpp ñu ngi taxaw doon xam nañ ko bu baax a baax. ñu koy nuyu bu baax ak présidente bi. wallaay ndeysaan wallaay. soxna May ñu koy nuyu bu baax. ndeysaan wallaay ndeysaan. nuyu Dieng ba Diouf ñoom bi. moom mu jël euh, di ko xaarandi rek. waaleykum euh, waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullah. la koy delloo lu bëree bëri. waaw ah, ñu ngi ziar bu baax kooku Baba Demba Malick Cissé ñu ngi ziar baax waaw ñu ngi lay maa ngi leen di nuyu di leen ziar tabaarkalla ñu ngi lay delloo ziar contentement ci émission bi hmm. jërëjëf waaw di leen wax ne na ngeen dalal seen xel ndax fii instant yi lépp yàlla matala na ko indi alhamdulilah waroon dugg fi yëpp dugg hmm. Hmm. waaw yàlla dimbali nañ ba matal nañ lépp. alhamdulilah lépp laa rek. day jàll léppay nooy. alhamdulilah waaw waaw di sant yàlla nag bu baax a baax. alhamdulilah di nuyu président Ibrahima Pouy. nuyu ñoom Assane Thiam ñoom xaani di lii ñoom ñëpp daal. di leen jaajëfal ndax am nañ ci taxawaay bu baax bu baax baax macha allah. yal na yàlla gën a motu lépp taxaw nañ ci bu baax. yéen nag di leen gërëm ndax yéen ustaas yéen amuñu seen fay. waaw ndax ñun am amoon na ci dimension bu ñu nekkoon. yéen a ñu ci jëlee ci ñu ci beneen dimension <laughs> mhm. macha allah ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal leen ñaanal yàlla mhm. lépp lu ngeen bëgg lépp lu ngeen di yóot yéen a ko xam yàlla na yàlla na leen ko yàlla defal yàlla defal leen jàmm fan may leen wér gu yaram ñaanal tamit Omar Diop moomu toog foofu yàlla defal ko jàmm yàlla wéral baat bi yàlla na ko fa yàlla egg jaajëfal naa ci borom borom kër gi. Mm-hmm. Mara Cissé. jërëjëf yàlla tamit yàlla may ko gudd fan. amiin amiin yaa rabbal aalamiin yàlla bàyyi ko fi. amiin yaa rabbi kanam ba si kanam. amiin yaa rabbi amiin wax ni rek. fii daal instant yi lépp lépp mën na. incha allah day gën a baax incha allah. waaw dañuy ñaan yàlla rek samedi. amiin ان شاء الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله تعالى جرجف جرجف مبوك جوتاي ودوها اك سيرج مراسي سي تاي محمد لامين منتخات يوكو في تاي مولكو وارال موي دائره انصار الدين بو بغداد تا نيوكو بارني تاكوسانو سيرج بابكر سي مبوك 2017 مام نمبوكم نيك تي ليمبي السلام عليكم مبوك مبو يكسي waaw aleykum salaam wa waa kay ku baax ki ñu ngi leen di. waaw waa kay la koy delloo. Alhaji euh, Modou Gueye. Ah. ci association a solidarité bu Mara Cissé. tabarkalla tabarkalla Gueye. waaw euh, maa ngi ziar waa plateau bi yëpp. Mhm. ñu ngi lay ñu ngi lay seen wàccuwaay. Mhm. Mhm. Euh, te di leen ñaanal aussi bis bi ñu jaan si yàlla yóbbu ak jàmm. amiin amiin waaw ñun moom dañoo bég allah. Euh, suñu xol sax dama fees. ndaxte kii di Mara Cissé lu bokk si ñun. ñu paree na ko bis wax dëgg yàlla bu doon lu sedd suñu xol trop trop. kon nag ñoo ngi ñaan yàlla yàlla si yàlla yóbbu jàmm. sëñ Modou Ba yéen a ngi koy waajal bu baax. waaw incha allah incha allah ah. maa ngi koy a dégg léegi nii sa waa bi soog yàlla si am na solo am na solo. ak ah,

Euh, yaatu ku yax la macha allah moom ay mbaaxam tamit moom toogee fii di ko wax dëgg yàlla du jeex. ak wér kon waaw kontaan si tam lépp loo xam si kon euh, laale na ci rek. ci mhm. am yaakaar euh, wax daal lu bari wax dëgg yàlla ndax moom. macha allah yàlla ko bindee noonu daal. am na solo yàlla yan yàlla guddal fanam rek. jërëjëf Guèye di jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. tabarkàlla ñu ngi sant message di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla waa association boobu noonu daayira boobu Alan Sarr boobu ñu ngi lay ñaanal daal ak yokkute daal wax sëñ Modou waaw yooyu di rafetlu bu baax a baax ci WhatsApp bi nga xam ne yaa ngi lëkkali booleem njabootu Wadduha foofu itam ñu ngi lay sant bu baax xam ne yow tamit yaa ngi ko taxawal mm-hmm. eh, tamit képp koo xam ne rek ñoo ngi aajo rek bëgg ci dugg ci njabootu Wadduha mu mel ni WhatsApp boobu tamit nga ubbi barkal ñëpp a ngi leen ñoo ngi leen di boolee ci biir ñëpp di ci gis seen bopp loolu tamit nekk na loo xam ni euh, kilifa gi kontaan na ci bëgg na ci lool mhm. waa tamit numéro boobu tamit bëgg nañ nga koy di jàllale saa su ndax ñu si bëri bëri ñoo ngi bëgg a dugg ci jotaay Wadduha waaw dëgg la incha allah naka whatsapp bi dëgg la ubbi mhm. mhm. euh, wax nekk bokk benn yoon bi jëm siraatal mustaqima kon ñu ngi sant ñëpp tamit di gërëm foofu nekk na loo xam si tamit euh, bon xëy na gisee bi du yomb ak demalante bi du yomb waaye yàlla boole na foofu ba ñun ñëpp ñoo ngi koy déggante ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. doon waaw képp koo xam si mi ngi ci bëggoon dugg ci mën na jaar ci 77. 702. 11. 74. baax na incha allah. 702 11. 74 jërëjëf Guèye kontaan nañ bu baax al ansar ñu ngi leen di bu baax a baax a baax. wallaay a na ko. dañu maxtaan moom ak euh, kii. bu baax xëy na xëy na yàlla dina dogal gise bi incha allah incha allah waaw oustaz oustaz Ismaïla Cissé waaw Ismaïla Cissé wallaay ndeysaan waaw ndax ñun moom lépp lu la ci maraîchage rek laa ci def rek kàttan yàlla jërëjëf kontaan na trop jërëjëf jërëjëf mu bokk ci njaboot Wadduha moom it tabarkàlla di leen nuyu Wadduha ni ma ko waxee saa su ne Wadduha solidarité Euh, cent et 33 821 14 85 rajo municipal de Dakar salaamaaleykum bokk mi. waaleykum salaam. ku baax kii ñu lay nuyu di la ziar. nuyu ziar bu yàlla ndax yitte. sant yàlla bu baax tur beeg fay woo. Moustapha Kan la. Moustapha. waaw. ñu ngi nuyu Oustaz baax a baax. sëñ ñu ngi lay ziar. ñu ngi ziar bu baax ñu ngi nuyu Oustaz bu baax a yaa ngi waaj waa ñu waaj baax a baax ñu ngi taxawaay baax a baax baa ñu ko war yëg baax baax na waaw ndax oustaz yóbbuñu fi sori quoi ay ndaw nañu woon. chaque jour dañ koy déglu buñ ko dégloo dañ ci jëriñu. waaw ndeysaan. donc oustaz dañuy wax sama ñun mënuñu wax sax. Hmm. ndax ñoom ñoo toog noonu ñoom ñoo ñu gën a xam. Hmm. ñoom Omar Diop ak ak oustaz boobu noonu ñoo ñu gën a xam. wallaay ndeysaan ñu naan yàlla yàlla fi yàlla bàyyi daal. waaw amiin kat. ba ñu mën a dund lu yàgg ak moom mu ñu mën a conseillé. amiin amiin yàlla na fi yàlla bàyyi la ci. amiin yàlla na waaw baax man xam mooy borom waaw wax waaw xool moo fenn yàlla yàlla insha allah jërëjëf mbokk jërëjëf ku baax euh, bu baax a baax allo allo bismillah allo waaw man Kéba Maaru Gaat waaw Kéba bismillah waaw sama xol a fees ak sama xol a fees sànq bi maa ngi jéggal sax nuyu sama ustaas maa ngi nuyu bu baax bu baax. wallaay ndeysaan Omar Diop mi nekk sama rakk nag nekk si wet boobu. tànkat maa ngi koy nuyu. ak oustaz ñoom ñëpp ñun dañu am yéene. waaw xol lañ doon waxee ba fàtte ñoom ñëpp. ndeysaan di nuyu Matar Diop ñoom Assane Dieng ñoom Ibrahima Diop ñoom ñëpp. ndeysaan bi tax mooy di def lépp ndeysaan ndeysaan lépp ñu koy ñu dëgg yàlla ñu koy sant yàlla may gudd fan ba ñu yàlla na ko yàlla ko yàlla moom rek dugg ndeysaan ndeysaan am na solo moom jërëjëf jërëjëf jërëjëf mu mel ni si la bokk ay e wane rek tolluwaayu bés bi mu mel wax dëgg yàlla ci li toll wax fa dëgg yàlla Pastef yi lii rek wane na ko wax fa dëgg mel ni am na ku ne de Dakar salaamaaleykum salaam wa rahmatullah ak kii ñu ngi lay nuyu tur bi ak fay woote waaw am président daayira yéen. ah bisimilah ah, jërëjëf oui président. ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp. ziar nañ la. ñu ngi leen di ziar bu baax. tey Aliou Cissé ñu ngi leen di fay. waaye sang bi ziar nañ la. yàlla kontaan nañ kontaan nañ bu baax. alhamdulilah. voilà ñu ngi leen di ziar bu baax. alhamdulilah yéen a ngi waaj ay bis bi. waaw ñu ngi waaj incha allah di ñaanal sëriñ Mara Cissé. yàlla na ko yàlla yokk bu baax. yaa rabbal aalamiin di ko wax yàlla yàlla xeb doon yokk amiin yaa rabbi amiin yaa dëgg yàlla maara waaj moom macha lu xew la wax ñu ko dafa yëg sama ko yëgee su ñun ba pare naa la xamal leen ñu muy ñu muy ñu muy dimbali duñ ko jox te mu ëpp la xam na ko mm. kon suñu côté bi yëpp ñu ngi di ko ñaanal jàmm. Mm-hmm. yàlla boo xam ne lu mu bëgg yàlla ko yàlla defal. voilà kon nag ci moom bii nag da nga am météo trop. ndeysaan waaw da nga may woon kilifa yi mel ni. sant xew la ñoom lañ si war a jiital. Mm-hmm. wallaay ndeysaan. waaw ñaanal ñi ñi fekk tal jàmm sa tal ko si kàttan yàlla. di rafetlu plateau bi sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax di la wax ni ñu ngi invité nga ñu mët invité wax. jërëjëf alhamdulilah jërëjëf Oustaz Ismaïla Cissé wax amul problème ci li problème mais wàcce boo fa isi dañ ko dëgg hmm. Hmm. ma ne ba léegi neewul wax yàlla lépp ñu dugg mën bàyyi leen ma man maa si man maa kon moom kenn amul fayam aa ngoom yow tamit ñu lay ñaanal jàmm suñu oustaz daal hmm. ñun yàlla xam na ko ñoo nekkoon si yeneen di dund yeneen lépp suñ teg ñu si siraatul mu tax seen moom kon loolu surtout suñu wax dëgg yàlla Omar ñu ngi lay ñaanal jàmm yoo xam lépp lu nga bëgg yàlla na ko yàlla Miliar faut wax dëgg yàlla min yaa rabbal alamin waaw ñun daal dëgg yàlla kontaan ah président nu jërëjëf damay doon laaj nii dama doon daw yàlla xam na ko ndeysaan jaaruwul tey nga waaw bis baa ngi noonu bisu ñëpp la. ñëpp la. alhamdulilah jërëjëf voilà et puis ñun ñooy gërëm Ablaye Thiam. ma Sam wax dëgg yàlla. bis bi trop. walaay yaa xam ne bëggu ñëw wax dëgg yàlla ñu ne gars bu baax ndax Ablaye Thiam. jërëjëf xaw ma bi xam naa ñàkk kii rek moo ko tere woote mais Ablaye Thiam wax dëgg yàlla ñu. yàlla dafa. yàlla xam ne mais bis bi moo tax instant yi gis nga loolu wala. li ñu koy wax yàlla fëgg. walaay ndeysaan walaay walaay walaay kontaan bu jërëjëf la yàlla xam ne fi nga teg seen tàng foofu la yàlla xam na ko. jërëjëf jërëjëf sëñ Malick jërëjëf jërëjëf président kontaan bu baax ci voilà bu baax la nit ku baax la. ndeysaan di sëriñ Mara ñu ngi koy ñaanal bu baax boo demee waxoon ñu ko yóbbal ñu koy ñaanal bu baax incha allah. Mm. te ñu koy xaar nag ñu koy xaar fii si bara ñu koy xaar. soobee suñu borom gis nga wallaay ndeysaan. Mm. gis nga daayira mm-hmm. lii dañu nekk ay ndaw yu am volonté. lii wane da ko da ko wane. am pas-pas. ah suñu xol li ñuy def bëgg li parce que nit di gëm mm. bëgg te des mhm. mais wóolu nañ ne rek mooy dëgg la wallaay dëgg la da nga lay sànq ci problème fa mhm. ni mhm. man dama wax ci sama xel jotal naa leen ko sax onze jours maa koy wax barki dem bi daal jeexee Matar ma ne ni ma gis ngeen di àndee ci bëgg ngeen mais man xem seen biir doon ndaw lu ngeen ma ko gëm ci sama xol biir la muy ngom muy maxtaar Euh, alfan alsan muy daayira ji dëbale muy daayira Bachir Diouf maa waa maanaam dama leen gis ci benn booloo koo xam ne am na solo dañ ko def defuñu ko ngir puugare wala def ko ngir am mbooloo ngir bëgg a siiw non dañ ko def li wacca lay di ànd ngir yàlla lu lu nit problème ci sa moroom mhm. mu mel ni kooka sa amul xew yooyu am xew xam nga façon yu yu chéri yooyu mhm. ñun jur ñu bariwuñu bu ñu àndulee fu ñu jëm li ci Maodo am bariwul bu ñu àndulee fu ñu jëm ah kon tey normalement comme dañoo war a ànd suñ mënta ànd kër mooy sa réew mi dafa taw yu am pas-pas lañu dëgg yàlla mel ni amoon na ku nekk ligne bi 3 821 14 85 ku baax ñu ngi lay ziar bismillah <laughs> ziar maa ngi lay Cissé. nuyu lay sang fay daal bu baax a baax a baax. nuyu rek bu nga fa sax ñoo xam ne ñu am xam-xam la ñu. Mm-hmm. te nangu ko partagé jullit yëpp fa tabaarakallaahu. alhamdulilah. seen it mooy jàng jàngale. Mm-hmm. tabaarakallaahu seen taxawaay ak waxtaan ak li wallaay ndeysaan teew fa nag teewal fa tey képp kuy sang rek ci hmm. biir Medina Gounass mhm. saa su ñu ngi leen di nuyu ñu ngi lay fay bu baax Mouhamed ñu ngi leen di ziyaar di leen seen wàcc yal na yàlla nangu ziyaar di am mbégte gu rëy tabaarakallaahu ci li ñu dégg mhm. hmm. ñaan barke yéen ci yàlla moom yal na yàlla sàmm leen amiin yokk seen xam-xam amiin tabaarakallaahu ustaas dégg nañu yàlla xam Eh, njaboot yëpp kontaan nañu te eh, suñu xel dalati na waaye dañu ne pëccum liir bu neexee day jaay jàpp ca mbagg yi ci dal gi ci ci bëri ci maandu gi ci wilaaya gi mm-hmm. waaw wàcce boppam maase njaboot gi mu jiite yëpp masha allah mm-hmm. mboolem daayira yi ñu koy gërëm ci initiative bu am solo bi. dañu wax ni cër bi ñu ko jox moom. Mm. ndax da koo liggéey ci ñun fa tabarakallahu. Mm. Mm-hmm. nit la koo xam ni ku mat a bis la. ndax ko bis mooy tuddee ko yonent yàlla mu xam. ndax gaa yi yonent bi ñoom ñoo fi wutu yonent bi. Mm-hmm. ñoom ñooy borom xam. Mm-hmm. kon ñu ko tuddee bis bi liggéey nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen ci ndokkeel bu baax tabarakalla tabarakalla saa si la xamal ni invité nga ñaari sang yu mag jërëjëf jërëjëf bëri xam-xam wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi ñoo xam ni macha allah hmm. kenn kenn mënu leen fay bu hmm. dul fay bi yàlla wallaahi wallaahi bàyyi leen ak sàmm leen bis ba it ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu fekke ko ak amiin amiin yaa rabbal noonu ñu ko taxawee foofu ci rajo bi ñoom ñoo koy taxawee noonu ca bis ba. alhamdulilah kon nag fa tabaarakallaahu dañuy wax ne ñun suñu xel. jërëjëf. macha allah bi président duggee rek mënoon nañoo bañ a dugg sax. waaye dëgg la. waaye dañu ne eh, paaka lu mu ñëw ñëw tasaat ko du ko yàq. lay ndeysaan lay ndeysaan. seetal leen ne ñu baax ngeen invité. Hmm. jërëjëf jërëjëf sunu du lan fa yóbbu. wallaay ndeysaan. Hmm. tiituñu ci ñoom bu ñu demee macha allah lépp dana mat. kon yàlla yàlla mottali amin amin mm. amin si la jërëjëf allah oustaz Maxtaar moom yeggul këram mm. Mm. ci yoon bi lañ ko dévié ngir bëgg njaboot mm-hmm. ngir fonk njabootu mu bàyyi yëpp ngir ñu taxaw Ismaïla moom it kazalik mm-hmm. eh, Sëriñ Omar moom it ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla moom it la Seydil Hadji Malick ñaanal rek mm-hmm. ko yàlla defal amiin amiin tagg bi teraanga àdduna ak ko àllaaxira amiin yaa rabbal aalamiin seen bi jërëjëf waaye daal ñu ngi woo ñëpp ci bis bi alhamdulilah jërëjëf leen wax ni mu ngi amee ca baxtaat mm-hmm. mm-hmm. tabaarakallahu sang yi koy jiite yëpp mm-hmm. ah kenn sëriñ Mara Cissé cër ndeysaan waaw ah, ñu jël bis bi tuddee ko ko dara jaale ko ko sàkku ci ñaanam sàkku ci kon képp kuy bëggee ma Mm-hmm. jërëjëf. te gëm naa ne kenn du noonu Mara Cissé ndax ku bëgg yàlla rek. ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay nag bis boobu ñu ci ah, woo ñëpp am na solo. oustaz suñu xol moo seet. suñu xol bi nañ bég nañ lool ci. wax lu gën a lu gën a rafet bi. waaye fa law say sang bu ñu toogee pour nga wax tey lot. dëgg la dëgg la dëgg la. tabaarakalaw tey xolof bi dafa desee leer. lépp lépp lépp rafet na. gërëm yow it mm-hmm. ndax émission bi ni nga ko piloté mm-hmm. mag dëgg moo ko mën a def mm-hmm. te macha allah tal na rafet na sell na waaw ñuy ñaanal nag Makhtar Diop mooy taxawee bis bi ci wax mooy taxawee bis bi ci wàllu conférence yi fa tabaarak aw Oustaz Masila dina fa teew amer di ba dina fa teew Alioune dina fa teew hmm. ak mama sow balaan kutir ñoo ñëpp ci sang yi lañ bokk jërëjëf kon nag bis boobu bisu sëñ Babacar Si alhamdulillah te loo bañ mu rëy rek tuddee sëriñ Babacar Si wallaay dëgg la wallaay dëgg la ñu yàlla defal dégg tabarkal la jërëjëf ci lu ci dëng rek ñu jéggal nu ko alhamdulillah jërëjëf waaye lu ci rafet ñu sante leen ko jërëjëf alhamdulillah waaye Maxtaar Ngom bég wallaay wallaay jaboot gi tabarkalla la nuyul nuyul ñu góor gi lu bari ne ko ñu ngi koy ziyaara moom itam waaw ne ñu ngi koy ziyaara ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér mm-hmm. waaw yëg nañ yitteem moom itam ak taxawaayam ci gi yëpp tabarkalla suñu Baye Maodo Sylla ak mboolem mag ñoo ñu bokk ci koñ bi ñëpp gis nañ seen uuf njaboot gi ñu uuf yàlla yàlla yàggal seen taxawaay tabarkalla nañ ci ñoom lool mm. tabarkalla eh, tabarkalla nga xam waaye <laughs> ñu matale ko mm-hmm. te mottali suñu yéene ci bis yu amiin yaa rabbal alamin amiin mooy Cheikhuna Tidiane salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi tawakkal la xee tey spécial jotaay bi nga xam ne saa su jotaay Wadduha mbokk yi tey gis lii nekk loo xam ne muy daayira ansaaru din bu Pastef bi lii rek wane na ko yaakaar naa ne ko ndaw yi mboolem ku dem ci gox gox goxaan yi tey jàpp ni tey kenn nelawul ñëpp a ngi bàyyi xel ndax seen Pastef ndax lu ko waral mooy tàkkusaan bi nga xam ne ñu ngi ko dippee taanu sëriñ Marsi radiyallahu taala anhu waaye tamit ñoom it ndaw yooyu itam amaat Pastef delluwaat dellusiwaat ci sëriñ Mara Cissé moom it pare na ko bés bi loolu dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla mu ne lépp lu ci mën ak mbooleem jabootu Wadduha ñoo ngi koy bàyyi xel kon li tam dañ koy dañu leen ci santat bu baax a baax mu melni kon dafa mel seigne Omar Diop sumay deg ndax fu mu nek ni mom xam nga ni duma la baye non ndax dama lay bet ñëw ko tok man xawma ni seigne Omar moom day yonent bi mo déggee nit ñi di jun rek may may gër ci leçon rek mané mom moom mu ñak nak mom seigne Omar mom nga bu ñu tour ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñu barkeeloo ko fan nga jëmeeg ñu ci yonent bi wal haqu annaka qad at خير الورى بالقدم والكتمان وهم أساس لمدين أمت بزاد الدبير فيدان فمدر يدان منها إلي تفضلان وردد بها وجد بلا الخسبان ما بال مثلك بالعباء وقد لا يزوب أدم جوك سكلان سيغتي جان فلتردوك لا تقرب سلطتان أتخفوك كيف تيميزاني سيغتي جان فتعلم فيما تشاء وتصرفا العالمين الوعي والداني سيان بل لازعا هاج الأجور تكرمان بين الرجال وهم بالتجان فخاز رسول الله يوم نزلي متقلدا بالحق فهذا رسول الله يوم النزول متقلدا بالحق والبرهان شيخ تيجان متبسما فرحا بسافي ملائكي بسطت إليك أكوفهم بتفا شيخ تجان والخر من بين نوافذ فليما متفرجات فيك كالبلدان شيخ تجان وبوجهك الساثي بوصف باهر وملك كتابك هته النوراني وعليك بر قد غساك محمدون في الموقفين في الإغلال بوجهك السفي بصف باهي أم الكتاب كاته النوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك متعة الأجفاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي من اللي بمثلك للفؤاد دلاني شيخ تيجان يا سيدي يا سيدي يا سيدي جزاك ربك عن بن الله عنا شتيان يا شيخنا يا أحمد تيجاني خطب الوجود والنعمة الأقواني ñëpp way na si meloom dellu sant mbay si kenn desul du rakk du doom war na waati waawono Serigne Babacar alim yaa ngi leen gin gën di diine sul du rak du doom wóor na waati waawono Serigne Babacar si um nga làmm ji hësël kenn du ko ku nekk sempi nga sampaam dellu goox ni ki xar Serigne Babacar abu naa abu bakari ana fi qabri radina fi seyaan illa ahri Serigne Babacar wowul kenn Serigne Babacar xaanu ko taalal bilaa daka joor ñaaw fuuta jolof saalum bawal waa gabon asalu kiyaawo Serigne Babacar saalu ngañu may tibukaay déggo ko tibal masib daay taalu ngañu bay na fa mbay tiwaawono Serigne Babacar fas si yor si loxoom xayru xalxi laa yëkka moom joxo mbay ca moom moo dikkal waati waaw nooy mbaay tabarkàlla sëriñ Omar Diop dafa mel ni euh, oustaz dafa mel ni dafa ma doon laxtu nag waaye nag euh, mbokk yi wax nañ ma ko ci suuf ndax ni ma dégg ñu wax nag sëñ Omar Diop moom tag yonent bi ma ne naa xaaral ba ci kanam tuuti ndax moom dama ko teel a balaa temps bi di jeex ma ne naa ci jël tuuti barkeelu tabarkàlla di ñaan yàlla buur subhaanahu wa taala euh, wéyal kàddu gi ñu koy ñaanal ci barke yonent bi ngeen yàgg lool ndax ni mu ko waxee tàggkat yonent bi incha allah bu fas yéene ànd ak li nga xam ne moo di mbokk yi nga xam ne waa daayira ansaaru diin mbokk di leen ko wax bu baax daal tey teew fi waaye tam ni mu leen ko doon waxee waxtu bi saa su ne Serigne Mara Cissé seen jotaay solo bi di seen jotaay Wadduha waaye tey parrainé bi ñu ko parrainé bis bi itam muy samedi bi ñu jëm incha allah le 8 avril 2017 la incha allah rabbi kon ñu koy waajal bu baax a baax a baax mu mel ni dañuy àndaat ak sëñ Malick Sidibé ci xarale bi bu fekkee itam machine bi jàpp ne rek sëñ Malick bisimilah kuy sëñ Mara bisimilah wallahu la ilaha illa الرحمن الرحيم الملك xéewal dikkati na ci alaaji maraasi kitaabu samsul bilaat moo andiwaat kitaabu wa duha bu bari njariñ toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñetti paas loolu de mooy jëy sun xeex badar am na ay ak lenn ci jëriñal sóoratu yaasin ak mbóoti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 ni dong jar na am ko alaaji Moodu Siise ñu koy wax Mara Siise yamul fofu ndax pharmacie Wadduha am na cuuraay luy dàq seytane di jar témèr kessé amna kira yu auto juróom ñenti témèr 4500 amna cinq cent am kër guy wéccu 7000 mille ak ñenti témèr amna na kiis guy leeral xelam xale ci mokal ak baña fatte fàtte alaaji modou Siise ñu diko mi ngi dëkk way

manaloo muhammadu rasulullahi yéen mbokku déglukat amal émission wadduxa dix ci guddi jàpp mu leen baaxee bii xewoo di gëstu yaatu ngir waxee leen ay ñi jëmale leen kanam dana leen jàppale ci faj bépp jàng maye trafic mu ngeen ci jang leen di ar keur ci sen fami ci walu chance ak ci walu seni kom kom ngir mu jëm kanam leen ar contre waye nak bu mun tamit di joxe bayre téere bi di karafil amna ci ñaari version arab ak français koy wéccio ci junni ak ñaar témèr manam. lolu nak di téere bi di karafil mu ngeen ko wecceekoo waaye ca lycée Limam foofu ki fa nekk di ngeen jokkoo moom si 77 617 70 44 77 617 téere baa ngi nii chance baa ngi nii xéewal baa ngi nii jaam la nu sàkke kooka mooy muhammadu rasulullah jërëjëf sëriñ Malick Sidibé ci wàllu bi waaye kani ni euh, sañ euh, di leen fa rek ni ci boutique yi di ngeen ñu ko waxee waaye tamit mu ñu génne ci li nga xamante ni maa ngi leen ko doon wax muy lu mu lu li nga xam ni tamit ngir euh, jàppale askan wi la lu ci dem ni ndoxum cité ak bari na li nga xam ni si lañ ko composé mu mel ni alxuraanu karim ni ñu leen ko waxee waaye tamit li nga xam ne moo di xuwa xuwa tamit di dox ci li nga xam ni moo ni ci wàllu wàllu néew kàttan ci wàllu kàttan kala lo tam bu leen demé ci boutique yi daa ngeen ko fa fekk walu froté bi froté bi nga xam euh, tam di ko ra baax ko jël ci tamit savon xamni muy savon bi nga xamni ni yow mi ndoxum city bi tamit demé ba nga xamante tam na genn ci yow euh, boko tambali tàmbalee rek mu daldi di tamit savon ouverture bank fi savon ouverture bank fi ak parfum ouverture bi nga xamni ni yëpp euh, tabarkalla loolu amna solo dingin ngeen tam li ñu wax ci boutique yi di leen fàttali adresse yi rek Serigne Mara Cissé yeen ñi bëgg jokk ak Serigne Mara Cissé mo ngi ci geegi way en face ci maam Limaamu Laay foofu numéro téléphone bi ngeen mën a 77 la 617 70 44 77 77 bu fekkee nag pharmacie ubbi na ko fi en da ngeen def 76 70 70 80 bu fekkee ci waanu point la da ngay def 70 922 23 75 70 900

si ngay def 76 583 17 33 583 17 kii ba léegi ak daayira nga xam euh, wax fa dëgg yàlla daf li ñu waxtaan xel président ay du préi waaye barkal la fekk ci yoon waaye soñ itam day tax rek daal di euh, taxawaat ci yoon wi euh, bi nga